dañ koo defal yàlla directement far bañ ko ko yóbbante ci kenn mu ne bu leen digal ku la digal loolu delloo na la ci kéefar ay amurukum bil kufri ba'da is antum muslimun li nga xam ne ak askanu ci lislaam dana ko laaj ci wàllu pas-pas bokk na ca jullit bi askanoo ci lislaam dafa war a gëm ngëm goo xam ne du am dara lum ci sikki sàkka ci la bépp atte bu ñuy doxal ci kaw suuf te jógewul ci sharullah ci li suñu borom tabaraka wa taala tëral atte boobee neen la te itam topp ko ak kànkute la ndax daf dul mën a nekk dëgg ndax dëgg dafa mënta jóge fenn furul ci yàlla qulil xaqu min rabbikum te suñ borom moo ne gannaaw ba bi itam dara lu jub mënatu faa nekk fa maada baada al xaqi illa dalal kon nag gannaaw dëgg ci yàlla rek lay bàyyi ko te gannaaw bu dëgg jàllee lu ñëwa ci ak réer la kon bépp acte bu ñu tëral ak bépp système de vie boo xam ne tëral nañ ko ci doxalinu àdduna te jógewul ci suñu borom tabaraka wa taala yoonal jël sax jéem a gëstu naan am na lu baax ak am na lu sa bon lépp baaxut lépp nekk ak cànkute même lañ ciy tudde lu baax day nuru lu baax ci kaw wala mu nuru lu baax ci moment bu néew bu muy jëriñ waaye suñ demee ba ci kanam tuuti lañ xam ne lor la woon loolu itam jullit bi daf koy war a fat kon engagement ci wàllu politique jullit bi askanoo ci lislaam te askanu ga wér liibaru ci ba fa ko neex rek fa lay féete fa ko yor ay intérêt àdduna rek fa lay féete loolu ittibaahul hawa la jullit war a topp bànneex dëgg la war a topp te koo xam ne la mu lay woo xëy na fajte say bànneex nga ca yaakaar ku ànd ak moom da nga am nangam da nga ci am place wala da nga am ay neexal wala daal boo amee ay jafe-jafe mu mën la koo lijjantil yooyu yëpp hawa la ay bëgg-bëgg la ay bànneex la loolu nag wër ta orienté jullit jullit bànneex bu ko orienté dëgg moo koy orienté fa dëgg féete bu xoolee xool nag gisul fenn fu dëgg féete mu taxaw ba keroog muy gis dëgg kon loolu itam jullit bi na ko xamaale ne moomul boppam ci wàllu politique ba parti politique yi nga xam ne benn bu ci tegu ci lislaam amul ñu di ko séddoo ni mu leen neex parce que ñi ko tëral bi ñu demee ba am fayda ba ne duñ tëral benn parti boo xam ne day tegu ci suñu lislaam la jullit ñu waroon a am fayda ne duñ dugg ñuy ci benn parti boo xam ne teguwul ci lislaam jullit war na am boobu boobu fay fay dañoo ni sax gannaaw ñooñu ko seen bi xam nañ ne l'islam moom daf leen a contre l'islam dëppoo rek seen i bëgg-bëgg ñu teg ci seen doole teg ci seen ngànnaay teg ci seen lépp ne bépp parti boo xam ne day wax ci turu l'islam dañ koy kenn du ko sax maye lépp loo taxawal ci mbootaayu l'islam wala daf ñu ne soo ci dugalee politique ñu tax ko amul ci sax nañu masla yow jullit bi nag ngay dem di dugali sa bopp nag ci loo xam ne nee nañ la fii daray l'islam nekk yooyu yooyu nax ak boobu ñàkk fayda jullit warul woon a ñàkkale boppam noonu fayda loolu carte la gu rëy ci jullit yi parce que loolu ku ko mën a wax ci pays jullit ba noppi te am ay militants yu bëree bëree bëree bëri il faut xam ne ay jullit dafa ne nga ne leen parti bi yoonam nekkul ci l'islam ba noppi te foofa ay jullit rek dafa ne nga yaakaar am nañ ay militants ci biir jullit ñooñu li muy tekk mën na la xam ne jullit ñooñu xamuñu seen diine waaw bu ñu xamoon seen diine doo mën a am benn militant ci benn parti bi la kon ku taxawal parti bi la doo ci am mën a am militant l'islam parce que dafa mbir nii ko teree leneen ne moom l'islam du ko atte moom it lay wax ne fu l'islam attewul bokkuma fa xam ngeen ne fi te loolu ku ne am na ci droit kenn du la ci arrêté kenn du la ci def daal waaw bokkuma ci benn parti toog naa lépp lu ñuy woote te l'islam nekku ci sama yoon nekku ci loolu kenn ku ne am na ci droit yaa ayyuha alladina amanu tajibu la wax waaye lillahi wa li rasul buñ leen wooyee wuy ji leen fu ngeen di wuyu buñ leen wooyee ci yàlla woo leen ci yonente bi waaw kooku dañ la wax mais buñ la wooyee ci leneen nag kaay yu weddi yàlla weddi yonente bi ci lañ la wax ah ci lañ la woo ngay ngay dem di rang rang ba ñàkk sa taf ci naaj bi rek da ngay sànni carte ah carte bu ñuy weddee yàlla bi ko weddee yonent bi moom ngay rang yow jëmaleen boon pour sànni ko ah te ba noppi nag bu ñëwee nga dem julli la dem ca jàkka ji nag di nodd nag di julli déedéet parce que loolu muy wàllu atte l'islam ñaari tànk rek lay dox al aqida wa sharia al aqida wa sharia ñaar yooyu mooy tànk yi di dox aqida mooy tool bi sharia mooy clôture bi ko clôture ba kenn du mën a wóor tool bi aqida muy pas-pas bi mooy tool bi soo demoon ci àll ba ji ko sa tool say garab say mango say banaana sa leneen soo ko fa defee te clôturé woo ko balaa am ñaari fan ñu wóor ko bu yàgg soo clôturé woo itam te jëmbatoo dara itam nag doo tax mu baax kon ñaar yooyu il faut ñooy ànd al aqida wa sharia moom la suñu borom tabaraka wa taala firee ad diinul qayyim suñu borom def ne fa aqim wajhaka li diinil qayyimi min qabli an yaatiya yawmun la maradda lahu min allah fexee ne dafa am diine ju sus diine ju jub balaa bi sa ñëw boo xam ne dama ko fomm man yàlla mel na danoo laaj yàlla yàlla ne ko waaw lan mooy diinul xëy mu firil mu ko ci ñaari aaya benn aaya bi surtout Ruum mu ne fa aqim wajhaka li diine xanifan fitrata llahi allati fatara annaasa alayha yow mi doon laaj dalika diinul qayim mu ne leen dalika ak diinul qayim bi ma la tudd doon fële yow mi ko doon laaj nga xamoo ko mooy aqida kooku mooy nga jëmale sa bopp ci yàlla xaniifan doo ko bokkaale dara léegi ak ban mu ne inil xukmu déggal inil xukmu pouvoir illa lillah amara an la taabudu illa iya dalika diinul qayim ba tey ca suratu yusuf gis nga ñaari diinul qayim te nee loolu dafa aqim wajhaka li diinil qayim amal diine bi jub bala nga ñëw ci man nga ne ko luy loolu mu firil la ko ci ñaari aaya ne la bii aqida la bii sharia la bu aqida bi mooy fa aqim wajhaka li diine xanifan fitrata allahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillah dalika diinu qayim sharia bi mooy in alxukmu illa lillah amara an la taabudu illa iya dalika diinu qayim ñaar yéen ngay def ko am nag diinu qayim muy diine bu jub boole aqida ak sharia ni ngay jaamoo yàlla ci biir jàkka ji noonu la sari ab yàlla di contrôler marché ba ngay jaayee noonu lay contrôler école ba ngay jàngale noonu lay contrôler économie bi ngay yëngatu mboolem looy def sari ab yàlla moo ko war a àtte wala su mën a fexe ba mu àtte koy kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon au moins nga def ko mooy naqar la ko ci sa xol leneen lay àtte te du sari ab yàlla mënoo ko faa jëlee ci sa loxo mënoo koo wax ba mu jóge ci nga métti lu ko ci sa xol te métti lu ko mooy doo ca bokk nit lu métti lu du ca bokk nit ki lu muy kër kër yi di ci yenn coono ba mu àttal ko jàppal di ca bañ ay nit di ci sax rayante di ci sax xuloo loola naqarlu ko da ko bëgg loola daf ko bëgg te yooyu bu jubtee rek nga gis noonoo bi commencé waat ñu bokkoon ndey bàyyi noonoo ñu bokkoon diine noonoo ñu bokkoon jàkka xuloo bi tàmbali te lépp kat pour intérêt ñeneen la pour toñ ñeneen ngi yëg kat ak ñoom di wàcc di lekk yow ba taxaw te suuf yow buñ ko gisee bant bu watt ko waxul ñu tam ko sànni la duñ la sànni ab doom nga lekk waaye bu ñu matti gisee matt ko bu leen nërala ngeen yow lañ ko yow mi taxam toog yow lañ ko dagg sànni la mooy yow ma leen yëgaloon jafe-jafe bu ñëw yokk beeg jafe-jafe yëpp ñu ne nañ ko teg ci consommateur yi ñu bitti buñ bëgg rek ne nañ ko teg ci yokk courant bi wala téléphone bi wala seet bi wala nangam nangam wàcce ko ci baadoole ñoom ñoo koy fay waaw ñoom ño lañ koy noonu rek ko loolu kon il faut jullit pas-pas boobu daf koy war a bàyyi wala suñu borom nee na aba xukumal jaahiliya di yaquul ndax atte ceddo ngeen bëgg atte ceddo mooy atte boo xam ne du te déglu suñu borom tabaraka wa taala suñu borom ne alam tara ila alladina yasumuuna gis nga yasumuuna ñi leen gëm nañu annahum aamanu bi ma unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduuna an yataxaakamu ila taaxut wa qad umiru an yakfuru bihi waaye nag wa yuridu cheytaan an yudillahum dalalan ba'ida suñu borom ne xanaa gis ñi leen gëm nañu yàlla te nag jóg bëgg atte woon ci taaxut ñu atte leen ci lu dul ndigal suñu borom tabaraka wa taala te nee na dañ leen a digaloon wa qad umiru an yakturu bihi ndax wa man yakfur bi taaxut la yàlla waxoon ñun dañoo am ndigal ci wedd lépp luy taaxut waxuma laa na nga dem jébbal sa bopp taaxut takk buum sa baat jox ko ne ko wommat ma jëndee sa nekk gis nga tool bi bi mu amul ñeeg boobu dafa ruu pay mi buñ ko andee ci ay julli nekk loolu ruu la parce que quartier boo xam ne julli doo nga fa ne ko fa mu ñemee samp teg ko pay mi te alquran di ko tere ci julli doo lefe yaa ngi rul tool bi fu ay julli doo leen nga ubbi baar bu ñu jaayee sàngara kooku yaa ngi rul tool bi fu ay jullit nekk dong nga ubbi foofu ay feccukaay kooku yaa ngi rootoo bi parce que loolu boo am ñax la ci toolu jullit ñax la waaw sàngara ñax la ci toolu jullit waaw carte ñax la ci toolu jullit jigéen ñi mooy am ñax la ñu ci biir toolu jullit mi ngi mel ne ku bayoon toolam ba noppi rek tool ko am ñax ñëw jëmbati tool ko te ay xaaxam te biir tool ba kooku tool ba da ko ñëgul moo tax wala ñax jaar mais fekkoon ne ñag nañ ko ba mu am benn bunt boo bëggee romb ci bunt ba yore xaaxam naan da nga koy sotti ci tool bi yow doo fa jaar bi mais nag comme tool bi kenn ñëgu ko fu la neex def loolu nag kon jullit bi na war a yëg ne ak askanoon ci islam dalay doy ci nga def loo xam ne bu ko ñëpp defoon parce que nit ki li war a am lépp moom mënu koo amal waaye nag da nga mën nga caa participer participation boo xam ne li nga def bu ko ñëpp defoon li ñuy taxawal taxaw maanaam su ñëwoon dañ ci tabaxal bâtiment boo xam ne daal ku am téeméeri million dana taxaw nga andi yow benn téeméer doomu boo ko ca defee rek def na loo xam ne jullit ñëpp duñ defoon bu ñu am téeméeri million yooyu yow boobaa wàcce na def nga ca loo xam ne yow bu ko ñëpp defoon mu sotti wala nga yanu sa benn birig andi rek jullit ñëpp buñ ko déggoon yoru seen birig ay biir la ñuy taxawal day taxaw kon yow jullit laa bu saa boo déggee ñu ne lislaam soxla na nangam bul xool naan loolu mënta nekk ak loolu kenn xamul kañ la seetal yow leneen ci war te nga mën ko te nga dem def ko ci yow daal di toog yow wàcc nga bu booba waaw yow wàcc na parce que adduna kenn mënul a réglé loo adduna adduna li nekk réglé loo mooy nga nekk ci fekkee li nga ci fekkee dara nga nekk ci mën te adduna ba mu ko ba léegi loolu ñu dañ koy jóge adduna continué di déborde di rëy waaw suñ ko bi ne di yëpp rek la ñu àdduna moment si ñu fi nekk la muy jéem a rek la nii rek mais mun ko rek la àdduna bi di wéy bon ñoo def ña ko fekkee na ko dañ ko jéem a rek kon l'islam bi la koy wax mooy li nga ci fekkee moo la ci constaté l'islam ba mu judd ba mu ci am la nga kenn junni am yem dund te juddul est-ce que loolu bokk na suñu yoon nekku ca gars yi noonu naa di sànkara yooyu suñu yoon nekku ca noonu te loola waaw waaye nag période bii nu fekkee nag fi mu nag mooy responsabilité moom kon nag période bii nu fekkee moom la ñu jéem a enregistré enregistrement bu normal bu ñu dee nag l'islam loolu rek la ñu ciy laaj l'islam li mu diine yàgg na lool waaye du ñu commencé laaj teg xeex bañ doon xeex ak yonente bi dem màkkaw yàlla yàlla dina ko laaj dun nii ñun fekke wuñu ko ñoom ñëpp ci waaye nag lii xew ci biir Sénégal nag moom te mu juyu ak l'islam yàlla du ko laaj saxaaba yi du ko laaj yonente bi ñun ñii ko fekke woon wane ne ay jul lañu lu la ko yàlla laaj kenn ku ne dana ci laaj sa kam sa responsabilité da ngay sa moroon yàlla xam na ko yàlla moom bu ñu waxee nit ñi nga naan def naa li nga man nit ñi nga mën a wax loolu li ma man def naa ko waaye yàlla moom li nga man xam na ko ndax moo la ko jox su fekkee soo waxee mu ne ko ci waxoo yàlla xam na su fekkee mën ngaa def mu deñ yàlla xam na su fekkee mën ngaa naqarlu ci sa xol te naqarlu woo itam lépp suñu borom tabaraka wa taala xam na waaye moom yàqute gépp goo xam ne am na ci jamono jullit bu ko fekkee bu nekk yàlla dana la ca laaj lan moo ca doon sa responsabilité kooku moom la ko kenn ku nekk xam boobaa rek la la ca doon musal mooy nga taxawee ca sa kenn taxaw te taxaw gi yomb na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yomb nañ ko man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman loolu kay lu jàppale la soo demee ba mënoo wax mënoo dindi naqarlul ci sa xol mooy kuñ ko wootee doo teew fuñ tey laaj ndimbal doo joxe fu ñuy publicité doo publicité fu ñuy tàccoo yow doo leen tàccu doo déglu doo toppatoo melal ne amul waaw melal ne lu amul yow loolu bu ko jullit ñëpp defal dana sotti kon ñi fi woote loolu du sotti taxawaay bu mel noonu il faut jullit bi boole waale ko ci diine parce que nit ñi dañoo jàpp ne diine ak politique bokkut waaw yi dañ ko wax ne noonu ma nag sama sëriñ man diine rek laa ko kii waaye nag bu dee politique bi moom kooku moom man suma ci neex lay jëf waaw dëgg la liberté boobu nga am ngay wut ci politique ci diine nga ko waroon a njëkk a wut liberté boobu rek ngay dugg doon sëñ bi rek moom daa war a yem ci diine waaye politique bi moom yoonam nekku ci ndax diine jooju yoonam nekku ci diine dafa war a jàngale bu ma def la jàngale mu bàyyi waaye diine bi diine jooju yoonam nekku ci ba foofu neex nit ne foofu la ñuy dem waaw ndax politique bi sax yoonam mën a jaar ndax mbir ay nit la ma bu ko dee def bokk ca mais diine ji nga xam ne mbirum yàlla rek foofu la yoonam gën a ñàkk a nekk waaw te foofu nag nga nangu nga moom yoonam nekk fa nu mu la noonu la noonu la kon loolu jullit bi su bëggee pas-pasam wér pas-pas ko kuy askanu ci l'islam askanu gu wér il faut mbir moomu itam mu bàyyi ko xel muy wàllu xokkum boobu muy wàllu poids boobu jullit bi pas-pasam pour mu wér il faut mu gëm ne yonent yi yàlla moo leen yónni gëm ne yàlla moo wàcce téere yi gëm yowmal xiyaam ak mbooleem lu yàlla xibaare ne day xew yowmal xiyaam bokk na ca laajub bàmmeel koy gëm xam nit ki su faatoon lañ ko war a ñaanal xam nga mbir mën mel mu nekk mbir dina baax mais lenn lu ne dafa am lu ko gën a cee baax noonu ñuy def bu nit faatoon ñu ñu rob ko ba nag di jàng alxuraan jàng alxuraan baax na mais foofu li ci baax mooy ñaanal ko parce que ñaanu xulwa yooyu ngeen jàng ñaanu leen dara da ngeen a jàng xulwa rek waaw ñaanu leen waa ji lim soxla waxalu leen ko ko léeg-léeg yàlla saxalal aw laa mi ñii koy laaj bu mën a tontu loolu defal leen ko demande ci yàlla parce que mënatu la demande dara moom yéen leen ko di jàng da ngeen a jàng ñëpp yaa ngi jóg def luñu wax dañoo jàngat buñ ci jubloo yàlla am ci yoonu jàng alxuraan mais ñaanaluñ ko dara waaw parce que biir boo soxloon ci biir ba almet tey ñëw taxaw fa di jàng xul wala laaj doo almet doo doo am almet da ngay wax li nga soxla moom ngay wax jamono bu nekk la nga la ko soxla loolaa ko walaabal waaw bu la médecin bi doon laaj yàlla fu la métti nga tontu ko moo gën a walaabal nga mel jàng fàttee waaw tontu ko ne ko kii mooy la si boo gën a rek ci muy wax ak ay tari fàtte rek rek lenn lu nekk baax na mais lu ne dafa am place bu ne lañ ko war a wax waaw loolu yow yaa ngay lor kii la nga ko waroon a waxal waxalu ko moom mënatu la ñaan yow la ci yaakaar ñaanu ay mbokki jullitam la yaakaar ñu wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne it aloole aqikum tasbi ñaanal leen seen mbokk mi yàlla sax xam la mi ngeen nekk fa naan def leen nangam ba fukki nangam ba téeméeri nangam ak ak di gën a mat loolu bokk ñu ne ñu koy wax loolu lépp nag ak ñàkk askanu ci lislaam askanu koo xam ne ku wér la naka noonu xéewal gay am ci bàmmeel ak mbugal maag dekki gaag wisaaroo gaag joxe gañu joxe téere baag peese gañu peese jëf yaag yooyu yëpp julli daf ko war a gëm te waajal ko nag wa man araada al axirata wa saa laha saxyaha wa huwa muminun fa ulaika kaana saxyuhum masura suñ borom ne alaxira ku ko gëm te bëgg faa am jàmm da nga koy waajal loo def am na ci alaxira jàmbur de wa saa laha saxyaha la wax da nga koy jëfal jëfal dañ koy jëfal jëfam mu ne ba walaa ba yow ma xew moom ngay wecc ko li nga am bala ngaa dem waaw mu ne bii dox adduna doxul doxul yow ma xew xam nga fii adduna alal dox na fi fii adduna ak bokk dox na fi fii adduna pouvoir dox na fi yooyu nag bëgguñu yow ma xew bu dee alal suñ borom dina yow ma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim kon alal kooku amee ci wecc ko ko tuyaa ba seetal nga def ko ci wecc ko ci contre yàlla masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamasali xabatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu xabba wecc verte ko te compte boobu bala ngaa dem compte yàlla boobu koo ko fa verte rek soo demee mën koo tiire foofu buy tegu tuyaa ko foofu soo demee yomul kaan fekk foofu buy tegu tuyaa ko waaye soo ko bàyyee fii nag verte ko sa compte yi boo fi jógee gaa yi dem retiré ko ñoom faje ko seeni soxla waaw bàkkaar bañ cay def yaa leen ci dimbale ndax yaa ko fi dencoon teg ko fi bu fekkee ne ak bokk nga yaakaar suñu borom ne fa idaanu fiqa fi suur fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaalu suñu borom laay mu ne al mulku yawma idin al xaqu li rahma keroog benn pouvoir moo am yàlla moo ko récupéré kenn du fa yu dara ñëpp ay jàmm kon nag léegi kon yomal xiyam deesu tukki bi yomal xiyam deesu ko waajale alal xam nga tukki adduna bi des na ko waajale alal alal boo ko amee mën ngaa tukki ak mbokk ak soo ko amee mbokk bu nekk France soo ko amee mën ngaa dem France doo amoo dara da téléphone ko rek mu teeru la aéroport yóbbu la néegam booy ñëw mu jënd la say jë daggal la dee nga ñibbi kooku ak mbokk la jàllale fekkee da ngaa am dara day itam mën ngaa tukki am ministre nga wala leneen nga bala ngaa ñëw soxnaal yaa ngi koy wax naan diw dina fi war a ñëw ngay ñëw mataar yi ñoo lay teeru si mën ngaa bañ a yor dërëm bàyyi ba nga sol mbub mu amul foog waaw soo demee ñu daal la oto bi réception bi lépp ba nga dénti woon ñibbi kooku tukkeem lu ko jàllale al mulk kee tukkeem lu ko jàllale ak nasab ak bokk kee tukkeem lu ko jàllale alal ñett yi yëpp dana sabay kuy tukki tukki naa aw ma ko mbokk du ma kilifa sax waaye nag samay teg laay rek kooku doo tumaan ke boo wàccee rek daal di woo taxi bu la neex dem hôtel bu la neex boo génnee nga fay ñibbi amoo benn problème wala nga ne mbokk laa ko am téléphone ko ne ko maa ngi ñëw kooku it du am problème wala nga mën kilifa laa ñëpp xam nañ ma bu ma nee maay jiw rek ñu daal may teeru kooku it du am problème ñett yi ne suñu borom ne doxul foofu yàlla kenn du ko téléphoné naan ko man alal lay indaale mu ne yow ma tey jii laa yen fawu maal laa yen fawu maalul wala banul nga ne ay bokk laa fam yàlla sa sa waaju baax sànga moo doon sama bokk mu ne fala an saaba baynahum amu leen askan nga ne man yàlla président laa woon wala mi mu ne al mulku nguur yow ma idin tey al xaq li rahman maa ko moom xam nga luy jëriña illa man ata allaha bi qalbin salim waaw ñëwal daal ñu vérifié sax yaa ngi setal wala yaa ngi tilima loolu rek xaq yaa ngi ketal wala yaa ngi tilima sens bi yëpp lool kon nag lii ngay am adduna alal baax na ci lool waaye da nga koy wecc ko bala ngaa dem daraja jooju baax na lool da nga koy wecc ko bala ngaa dem ndax daraja ci lañ mën a yëkkatee dëgg suufee si neen waaw daraja soo ko amee yàlla dénk la pouvoir mën nga ci pouvoir bi nga ci yëkkati dëgg di ci suufee caaxaan su ko defee yaa ngi koy wecc tuuti ba soo demee yàlla ne la loolu nga doon liggéey ci daraja ji ma la dénkoon mi ngi nii peut-être bokk la bokk gu baax la da ngaa attanu ci nit ñu baax wecc ko ko loo koy wecc ko mooy roy leen ci seen baax boo ci nekk rek naan man diw sàngam ay tàmm fexeel loolee mu meloon ba foo ko tudd ñu xoolaat la loolee mu meloon nga laajte jikko yooyu nga jéem leen mel bokk bi ngeen bokk wecci ku ko tuyaaba tuyaaba mooy wecci ku ko yor jikko yam yoroon loola bu boobaa bu ëllëgee bokk nga dana la mën a jëriñ ñu ne ah kii day dafa sëtoo ci yu baax royoon leen ndax ku am yàlla soxee ci bokk yu baax defal nañ la départ bu am solo waaw départ bu am solo ndax lu baax su mu rànkewul ci yow roy ko day jafe ci yow day yomb ci yow lool waaye nag soo bëggee doyloo rek nag maa bokk ak ñoom su waxee ñu dinañ présenté ñu ne doo doomi diwa doomi seen diwa ñëpp ñëpp daal di diw dañaa war a fexe bañ naan diwa jëratul ñuy tudd bàyyi ba suñ fallu daana ko wax naan fexe leen ba nekk diw te bañ a nekk rakkal nee na rakkal mooy doomi diw doomi diw rakkal rakkal xam ngeen doomi diw diw gi suñ ko sagalee ba noppi la ca génne ba duñ ko génnee ba noppi la ca def rakkal la nee na doomi diw moom rakkal rek waaw da ngay fexe bañ ñu mooy diw suñ ñëpp diw rek concentration bi loolu doy de waaye bu nit yooyu koy jiw ñu ne ah doomi seen jiw ñu ne ah waaye kon day baax na ba lañ laa foog ñu ne doomi seen jiw su ko ñu tudd bàyyi war ngaa mën a liggéey def ci islam loo xam ne buñ ko defee suuf rek mu doy bu ñu diw yi ñëw de ñu ne ah tabarkàlla diw de xam nañ ko tabarkàlla waaye ñu ne diw ñu ah koy kooku ñu ne doomi seen jiw ñu ne ah xanaa kon ñu maslaat moom ngir bàyyam rek ñu jàppe ko bàyyam rek ñu jàppe ko bàyyam kooku ko tuur kooku yow say doom bu ñëwee ñoom rek ku ñëw di jàppe kooku kooku xanaa seen maam ñu tudd dañ mën a jox dañ leen daan défense dañ histoire da lañ daan di tëb waaw kon ci gàttal lii la ñu war a nar ci koy askanoo ci lislaam ci wàllu pat-pat yoo xam dañ ko tënk lool ci wàllu jaamu yàlla bu fekkee dañu askanoo ci lislaam war nañu gëm ne yàlla andi wunu fi rëdul ñu jaamu xam nga doomu aadama yi buñ defoon lañu war a def yàlla andi wuleen ci pour ñuy kër kër yi kër kër yi ñu seen dund bépp ñu di ko jeexal ci defar àdduna àdduna bi yàlla préparé na ci yoo xam ne bu ko doomu aadama yi defoon yëpp mën naa mën nañ ko teg ci yoon woo xam ne mooy defar boppam science yàlla def na ci ay xeet yi xam-xam yoo xam ne doomu aadama buñ jaamoon yàlla kese wéetal ko dana leen feeñal xeeti xam-xam yoo xam ne doomu aadama duutu liggéey dañ toog affaire yooyu doxal boppam di ñëpp robot yi yeeg yeneen yi ñooy liggéey mais doomu aadama du wërta def doomu aadama ci yàlla la war a sonn su ko defee matériel bi sonn ci moom mais su fekkee nangu wala sonn ci yàlla rek yàlla orienté ko nag muy sonn ci matériel bi doomu aadama ci ne ñoo fi nekkal matériel bi ñooy ñooy kër kër ñoom di jéem a aar matériel da ngay gis benn waaye ba taxaw di garder ab tabax rek ab gudd suuf bu tabax sax loolu la julli ci wala war a mu def defale rek di garder tabax tabax bépp gën a foor bopp tabax bépp gën a foor xoolal la doomu aadama ci ñi dëkki nopp ma nit ko ak yàlla defal ko nga taxaw gàddu fekk la taxaw di garder tabax ba asamaan si yàllaa ko nekk te tabax bi ay xeer doo koy dajale fii yoo xam ne tabax bépp waroon a fag ci biiram fi nga ko taw béeg naa moom taxaw ci biti di taw te di garder tabax bi yàllaa ko nekk yàllaa ko nekk suñu borom tabaraka wa taala moom kenn mënte nee na woon laa tab diina li xalqillah bind bi ma leen bindoon faw ngeen am lu ngeen ngeen sonn bu ngeen ma jaamoo man yàlla nag ma tàggatal leen li ci àdduna bi lépp ngeen jaay jox saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi ardi jamii'an minhu waaw waaye nag su fekkee nag wu leen ko jaam nag mu def leen nag yéen mu tàggatal leen ngeen di jaamu matériel comme yéen matériel bi nekk seen service yéen a nekkat ci service matériel bi waaw la doomu aadama fi ne ku la gën a dugg ci àdduna rek fi ne moo la gën a soxla fi ne waaw fi ne alal ji ñuy bëgg nekk homme d'affaires yi yaa su ci àdduna bi ku la ci gën a sori fi mu ne moo la gën a soxla fi mu ne parce que mooy nekk ruu yi àdduna ruu yi àdduna joxe àdduna dafa mel ne oto buy dox gaa yooyu ko jox seen bopp ñooy ruu yi ñuy doxee te yow da ngaa waroon a dugg ci biir oto bi oto boo xam ne duggatoo ci mais yow yaay ruu bi dooy doxal yaay ruu bi boo ne teel ñu remplacé beneen ruu waaw mooy gaa yi opérateur économique yu mag ñooy jàpp nañ ne di dëgg dëgg ñooy ruu yi dawal àdduna ñooy dawal àdduna fi mu ne tëluñu gaa yi fi mu ne parce que dañuy kër kër ci alal ji tëluñu ci alal gaa yi rek ñoo dugg ci oto ba yow da ngay def borom alal bi mag joo xam ne gaa yi nekk kër ba suufee la ñuy ñëw sa kër ga sa alal yow tëloo ko yow yow yaay ruubi ndaw ñoom la ñu dugg ci oto bi ñoom sa kër yu rafet la nga defal ñoo fay jaaxal di taal télévision yi di sabbu ci robinet yi di lekk ci ñam yi di téléphoné yi yow yaa koy diwin yow yaa koy télé ku nekk yaa ngi fa dugg yow kay gaa yi jaaxal yow yaay ruubi gaa yi ne dugg na ñoom toog ci kaw moom nga gën a rek yaa ci rek wala ñu la yaa moom oto bi rek yow koy budul war ak yow gën a yaa ci rek loolu loolu la ñu siy ko nand dañ siy ko doon nand waaw mais nit ki moom bu mu wutoon jaamu suñu borom tabaraka wa taala lay def sabablu li mu war a sabablu lu muy sabablu ne yàlla moo ciy dugal barke day mujj duutu sonn te ay soxlaam day faj waaw mais soo ko nagul nag balaa sa soxlaa faju lu ne dal ko daj boobu bu ñu ko seetloon coono bi nga ci dal ak soxla ci faju duutu ko dal coono bi nga sos bare wala koy romb gis këram di ko yéen mais bu ñu la waxoon effort yam ma def ak coono yëpp def ak la mu sacrifié boppam ci bàyyi ay jaamu yàlla ba doog a am lii bu ñu la ko waxoon du ko def du ko jàpp parce que alal joo xam ne bi nga ko naka am dana sacrifier say jaamu yàlla sacrifier ndigal yu la yàlla digleeru xam ci tere yu nga terewoon ba doog a réalisé loola jëlatu ko parce que la nga sàcc moo ëpp parce que njàngam bari naa wax ne am na bénéfice dañuy xool li nga ci ñàkk ak li nga ciy jariñoo loolu lu ëpp masalan lii maa ngi ko jëndee woon téeméer ñàkk naa ci juróom fukk waaye jaay naa ko ñetti téeméer kon ñoo am na ci bénéfice waaye su fekkente ne téeméer nga ko jëndee woon waaye ñàkk na ci yeneen ñaari téeméer te ba nga koy jaay naan ko jaayoo téeméer kooka da nga perte da nga perte mooy nag li nga am ci àdduna la nga ca jaay parce que ñu bari seen diine la ñuy jaay di wuti àdduna seen diine la ñuy jaay yu bare bare bari nga leen gis leen ñeel lañ am ci àdduna mooy seen diine la ñuy jaay mooy kat wax na ko nee na nu rakkaw duniyaana bi tantiqi diinina fa maa diinunaa yabqa wala maa nu rakkaw nee na yàlla dama jox ñaari mbalaan mbalaanum àdduna ak mbalaanum alaxira mbalaanum alaxira moom dara rasiku ci mbalaanum àdduna nag daa bënn daa bënn xam nga àdduna moom daa bënn du jag àdduna du jag boo kër këree ba am alal feebar dugg la ngay kër kër di faju njàqare dugg la loo dugg rek dugg génn la de il faut gis muy def ak alal ji ma ngaa beneen problème boo xam ne yow yow yore woo ko yow waaw mais foo toll fu nekk am na problème bi bopp parce que alal noonu mën a yéegee noonu la lay dugal yi tamit ci ay problème ñu ngi mel ne ku yëg ci kaw garab rek xam nga koy ba ca mbedd ma yow mi taxaw si suuf yow waa mbedd ma duñ la saaga mais man moom ma teg kaw waa mbedd ma dañ koy sédd di ko saaga mais yow mi taxaw si suuf di ko ñeena ak neexoon ba egg fa la ci egg yaa ngi dem mais ma ngay am problème yoo xam ne yow mi taxaw si suuf amoo ko parce que ña koy sédd séenuñu la li koy seen yow seen ñu ne yow yaa ngi ci biir kër gi yow taxaw moom mu yëg ci garab bi ba mu am njëriñ ba ñëpp di ko fekk ñee di ko saaga ñee di ko sànni air ñee di ko wax lu nekk yow mi taxaw jóg di fa ñee rek boo ko eggoon am problème yow mu am mooy ci ngay seen mu ëpp la alal lool wala mu ëpp la dara de nga naan aka neexoon moom leen la diw diw moom fa mu toog ay problème nga fa yu ko fay fekk yoo xam ne léegi mu xool la ci suuf ñee la yow mi toll ci suuf kon doomu aadama bi daa war a yëg ni jaamu yàlla la ko fi yàlla andee suñ borom wax na ko nee na fal yaabudu rabba hada bayt suñ jaamu borom néeg bi borom néeg bi nga xam ne at'amahum min ju'in wa amanahum min xaw te nag soxla yi doomu aadama ci àdduna bi génnul ñaari baat yooyu loo lekk ak koo fatal lekkee ñam ak sécurité loolu kan mooy soxla yi doomu lu way ci wut loolu kër loo koy dañ sécurité loolu tey fanaan ci bedd bi amanahum min xaw doom nga bëgg moo tax ñuy wut ay kër di ko tëj dugg ci biir toog yi ngay toog itam loo koy day ak amahum min ju'in nga bëgg soxla yi doomu aadama yëpp nga ko dugal ci ñaari baat yooyu ak amahum min ju'in wa amanahum min xaw suñ borom nag nee na li koy maye mooy fal ya'budu rabba hadha bayt bu ñu jaamoo borom néeg bi rek mu jox leen ko ci suñu fatigue bu ñu ko jaamoo ne sa dund àdduna bépp yaa ngi koy jeexal ci wut lool rek ak koo fatu alhaakumut takaasur hatta zurtumul maqaabir waaw kër kër kër kër kër kër kër kër yi bañ a yaa ngi sa morgo ba rek yëpp la lu jóge fa dem am bàmmeele directement kon jullit war naa xam ne ko ci tax a ñëw mooy jox jaamu yàlla privilège gisal ko ci léppam lu mu mën a def bu jaamu yàlla jotee mu bàyyi loola dem jaamu di suñu borom tabaraka wa taala te lu muy liggéey lu nekk it tax ak jaamu yàlla lay doon ndax dafay defee na ko yàlla digle même bu dee commerce bu nekkee ci bureau bu nekkee ci lu mu mën a doon day fexe ba na muy liggéeyee lu yàlla biram nag bu ko defee boobaa mi ngi ci biiru jaamu yàlla waaye su julli ji jotee mu bàyyi ko fa dem julli ñooñu la suñu borom tàgg daf ne rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an zikrillah wa iqaami salaati wa iitaa'i zakaa yaqaafuuna yawman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar liyajziyahum allahu ahsana maa amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarsuqu man yasaw bi xayri hisab suñu borom nee na ñiy gaay a dëgg xam nga léeg-léeg ñuy tagg na diw mooy waaja waaye suñu borom nee na kii waaja du waaja dem dugg ci néegam rek tëj néegam naan dafa ne ci xalwa day wer dakka kii di jëndi cuuraayam di suur di jaxaar la ko nit ñi andi kooku du waaja waaja na ca martaba itam di raayam te di jaay di jënd waaye waxtu julli day faat alquran topp tawu ko topp tawu la koo koy du waaja suñu borom nee na kii waaja mooy ki ko mën a doone ki nga xam ne mën naa ne ca martaba mën naa ne ca bureau ba mën naa ne ca tool ba mën naa ne ca atelier ba waaye la muy liggéey du ko fàbbi ba bu tudd yàlla jotee dana fàtte ko yàlla ci lépp lu muy def bu julli jotee dana def bi laa tulhiihim tijaaratun tijaara moom mooy marché bi bayu nag mooy li ci def lépp bayu moo gën a yaatu tijaara mataw ba day def bayu téye ba day def bayu te ca bureau ba day def bayu moo tax yàlla ba muy wax ci àjjuma néewul idaa nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'ati fasaw ilaa zikrillaahi néewul wasaru tijaara mais daf ne wasaru baya comme ne baya rek ñëpp dugg nañ baya mooy lépp looy def ci am dara rek bayu la ñu bari nag dañoo defe ne aaya boobu suñu notee addu bi na commerçant yi tëj déedéet le borom bureau bay tëj bureau la jox mataw mën a wàcc borom atelier ba la tëj atelier tailleur ba la tëj bayo la ñoom ñëpp dañuy bayo lañ wagarul bay ah bàyyi leen bayo te dem ci jaara nag moo yaxantu ko moo weccee alal ji am ba pare ñu koy yaxantu kon jaamu yàlla googu julli bi daf koy fonk tàmbalee ci laab jàng attey laab parce que koo dee ne julli laa di askanoo ci lislaam te xamoo yan mooy attey laab yan ndox moo mën a laab yan moo nga xam ne su demee ci ndox mu nekk sobe su taxee ci yére mu nekk sobe yooyu yëpp jullit bi lu mënta ñàkk la farda ayn la moom kooku kenn du ko bàyyee ñi naan ñooy borom xam-xam yi kor yi mais farda ayn la yooyu dañ ne ku la mënta noyyi waale mënu la koo yóbbaale bay moom nga seet nag fekkee sa sëñ ak wilaayam rëy na ba mën na laa noyyi waale kon kooku kon bay boo nga bañ a koy jàpp bay boo nga bañ a gis waaw fekkee iseel lool rek iseel lool wala nga bañ mën na la bu ma lekkam doy sa lekk waaw nga ne da sëñ ba daal ma ngay lekk ci kër ga kon nag loolu mën na noo toogaay soo itee loo gis ne walaa ban bay boo nga bañ a jujul su walaa banul nag kon bay boo nga xam ne kon xam attee laab ak la ca war kooku moom lu mënta ñàkkal parce que ñi gën a yomb lekk yi naa ni fii la lu tax mënu la ko yóbbaale te loolu moom la ne fële la li gën a yomb rek ku ko mënul doo mën la gën a jafe kon julit bu ne na xam lu attee laab xamal ko njabootam surtout jigéen ñi soxna yi day gis jigéen ñi na nanga mit doom su demee ba maara di tali borom këram jóge ba la ñuy andi genn màggat te koñ ba mu di ko wax la ñuy jàppe raxasal say loxo ah am fa de boo demee ay doomam samp nañ samp nañ kër ay doomam samp nañ kër ñu woo genn màggat bu ñu woon sax ab passé waaye màgg ko mu dara koo xam ne mooy foofu la jaaroon foofu lañ ko indi moom itam mu koy jàngal jàngal loolu waaw la mu koy jàngal lépp ay ci daa lay doon am na ci ñoo xam ne dañ leen di jàngal ba ne la même tuuti julli dooru ko am na ñoo xam ne jigéen di seen di duñ julli am na jigéen ñu ma ko masalaaj mais daal moom dañ ne ko soo julli soo kii rek da ngay bàyyi ko rek yooyu waaye waaye waaye day doo dooru ko waaw ak màggat ko ko jàngal màggat ya fekkoon ba moo ko jàngal iliman laajuñu iliman laajuñu kenn loolu jara jugaat la maanaam fépp awoon nisaa boobu suuf lu jëm ci affaire u pénc kooku ba léegi moom ci jaahiliya lañ ci dund ndax li ko gën a def mooy ji comme góor du ko def góor du ko def góor dina jàng buntu boobu mais moom di ko appliqué ñaar da koy fàtte xam nga fekk boo ko jàngee ba pare li ci gën a bari ci li nga ciy dese mooy li ngay def mais comme yow doo muuru yow góor nga doo muuru doo pénc jàngoon nga atte ci yi na yow doo pénc loolu mooy tax atte ci bari daf lay ci jigéen ñi itam dañuy jàpp ne comme góor du ténñ waru koo xam dañ woowee màggat ma nga xam ne moom ténñ la ñaari nit wala ñetti nit moom mu ñëw wax leen lu muy ténñ su ko defee mu ngàbb loola bantu salaat ngàbb loola paaka suuru loola ci ay yu kenn xamut su ko defee rek loola ñu jàpp ne diine la te fekk na nag du diine kon attee laab nañ ko jàng jàngal ko njaboot yi ak jàng ko ba xam julli yi itam ñu jàng ay attee ba xam ko lépp kat su fekkee kat askanu ci lislaam loolu ngeen ma laa jot maasaa ya am intima ilil islam su fekkee ne bëgg nga sax askanu ci lislaam doon lislaam bi wér bopp yàlla bi rek laa wax waxuma bopp gaay waaye lislaam bopp yàlla bi mu wàcceewoon sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee bëgg nga sax askan ci wér kooku moom lii il faut nga xam il faut nga xam attey la suñu borom moo ne ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayni wa in kuntum junuban fattahabu kon laaj alquran karim moo ko digle balaa dee jàpp nga jàpp balaa dee sang nga sang danañ ñu gën ci yitti wala ci yar ci itam nag jigéen ñi ak di ko jàngal tam gone yi naka noonu julli itam julli itam nga fonk ko te ko di ko def ci waxtoom suñu borom kat ñii julli ñaari taggal leen tag daf ne wallatinahum ala salaatihim daaimuun waxam ne wallatinahum ala salaatihim yu xaafisuun daaimuun ak yu xaafisuun bokku na am na koo xam ne moom faaw wen kët leen moom dana tax a ba julli kooku mi ngi julli mais kii sax nag mooy yu xaafisuun ki koy def ci waxtoom waaw lenn lu nekk dafa am waxtu ne añ ñam yi ñuy lekk rek añ boo toogal ci ne ba cinq heures ngay añ ba fekk ne koor kaay ma añ kaay ñu añ dana la xalaat kaay ñu joxe ne ko kay nga wax tuddatul añ waaw léegi heure yi lekk yi su heure ba passé du nangu nga jox ko suba kon heure julli soo ko passélee heure ba te amoo benn ngant donc ba ci des ngay julli tisbaar kooku bu fekkee amoo benn ngant la ngay julli du tisbaar da ngay julli du tisbaar xanaa kay da ngay laaj dina war a da ngay def leneen waaye bu du tisbaar fekk amul benn ngant moom li ngay def moom du tisbaar kon sàmmonteeg waxtu julli di ko def ci ay heure ànd ak sant yow nga ànd loolu benn jur bi daf ko war a xam lu su bëggee askanam ci lislaam fépp ñaareel ba asaka kooku itam jullit daf ko war di joxe su demee ba war ci moom asaka nag seetlu leen baax ne ko suñu borom waxee xam ne suñu borom moo ko génne asaka joxe asaka la wax gis nga doo jàng kalit alquran wa axriju zakat wa aatu zakat la wax xam nga ki joxe génne mais ki génne mën naa bañ a joxe xam nga yàlla day rëcc ne ni muy waxee moom day seet li nga xam ne dañ dugaale naa leen ci rek ki joxe day génne xam nga mën a joxe te génnewu mais mën ngaa génne nekk doo joxe waaw waaw loolu mën na nekk fi ne bari nañu génne asaka mais joxe wuñu asaka moo tax suñu borom ne wa aatu zakata joxe leen asaka joxe leen bari nañu génne asaka waaye joxe wuñu asaka waaw génne asaka ba noppi yeewee ko say gan wala nga fayee ko say bor wala nga neexalee ko say nit wala nga gàddalee ko say gan yooyu yëpp wala nga jox ko daan ñoo xam ne dafa am yeneen yoo seqal ñoom doo seet sax ba xam yeyoo nañ ko ci lislaam ne génne woon nga ko mais joxe woo ko génne woon nga ko mais joxe woo ko kon jul bi itam lay jox asaka ña nga xam ne ñoom ñoo ko yeyoo loolu itam day tax ak askanam ci lislam bi amul kenn koo xam ne nag danga naan ni ma ko waxee woon daf laa jàngal diine wala mu nga xamee ci moom diine ba tax na moola moom dafa asaka lépp moom moo koy jël waaw bu ñu waxee rek nga ne jox naa ko sëñ ba déedéet yàlla joxuloo nga ko ab sëriñ ay aaya la la tuddal lil fuqara innama sadaqatu lil fuqara néew lil masayix de innama sadaqatu lil fuqara bu fekkee sëñ ba bàqee rek nga tax waaye loolu masaakin wala amini waaye sëñ ba bu doonee fàqe yaa koy gënoon fàqe parce que mu si garaaw ca kaw lay toog wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal xaarimin wa fi sabilillahi wa bni sabil faridatan min allah suñ borom dafa lim ñi ñu koy jox su la leeree nag xam nga ci moom ak ragal yàlla ak jub goo xam ne comme moo la ko gën a xam soo ko joxee mu joxe ko mën nga ko def intermédiaire mu joxe la ko te loolu sax daanaka mën naa ñàkk ndax koo dégg fu nekk moom fàqir moom yomb naa xam fàqir mu ajal dem ci téere di doog di xam ba xam ci fàqir lam de fàqir yi masaakin yi moom ñoo dëkkal xam ne xel nit ñi moom la suñu borom nee na joxal ma ko ñooña intéressant soo amee loo koy jox yaa xam kàddu nga koy tuddee yaa xam leneen loo ko mën a tuddee nga jox ko waaye asaka ji moom joxe ko fi ko suñu borom tabaraka wa taala joxe su bokkee te ne ko yooyoo nag nga jox ko ca la nga xam ne moo ciy jël naka noonu koor mënoo askanu ci lislaam ba noppi di caaxaane koor ngant lu gën a ñëw rek tax doo woor bu koor gi ñëwee ñii la ulcère ñii la jabet ñii la nangam nangam kenn ku nekk nga xam ne yaay nekk sa métier bopp te yooyu bu passé kenn du ko déggati ñoom bu koor gi passé kenn du déggati nga wax yooyu kon bala nga am ngant bu lay tee woor da ngay dem ci ay médecin ñu seet la ba gis na yow mii kat soo wooree mën naa indi ci yow lool te ñooñu la koy wax maandu benn intérêt bu ñu ci am ci yàqal koor gi nekk bu ko defee nag nga toog a bañ a woor te bu koor ga passé itam su ngant la demee da nga koy fay foofu itam jigéen ñi ñoo ci gën a xaw a doy waar parce que ñoo gën a bari ñoom ay ngant parce que góor moom mën a dul ay ati at at du ma safaat koor bare bare bari ay ati at am nañ ko koor dina ñëw ba jeex duñ ci faat dara mais jigéen moom néewaana mu ñëw koor ba jeex te amul ngant ba arrêté ci koor ñu ko bari nag suñu arrêté koor ga danañ jël ak càggante danañ dem ba ngant la jeex ba mu seetlu seen bopp continuer rek yooyu ne ma damaa yore ngant fekk ngant la arrêté na bu yàgg te da nga ko war di vérifier fekkente na dat ba mu war a jeex jóg na su demee ba koor ga jeex itam ñu sàggante fay ga duñ ko fay ñenn ñi sax ne moom duñ leble teg yàlla fekk nag léboo woon yàlla sa bopp nga nag parce que wóoraloo yàlla sa bopp ngay wóoral kon lébaloo woon yàlla léboo woon yàlla sa bopp nga leboon su ko defee itam aj makka jullit bi yëg ne dafa bokk ci lislaam du tukki rek wala wuti daraja rek te ñu koy wone ak modeste ba ne moom du dem màkka daal parce que moom nit ko modeste parce que jàpp ne dem màkka daraja tax ñu di ko def koo xam ne mën na ko lool waaye moom day wone ak modeste ba ne moom du dem màkka day demal baayam demal yaayam demal nijaayam demal koye koo xam ne am man xale laa ba léegi damay bëgg damay bañ cat yeeg yu demee noonu nangam nangam waaw day bañ a dem màkka daal ñëw ñu di ko cat ne bari gu toll diw at di dem màkka léegi ani màkka melatul noonu léegi te que bu jëkkoon da nga daan baya baya ba ay at allah ji ñu mag yoo xam ne am mbooloo mu bari ñoo daan mën a dem makka bu bu bu jëkkoon léegi nag dem makka gaa yaa ngi di gën a dem fu gën a sori makka foofu ay Hong Kong yi ñuy dem ak yooyu moo gën a sori makka foofu la ñuy fay ci hôtel yi dem moo gën a teex la ñuy fay ca makka foofu loolu nag kon nit ki bu mënee dem makka da dem makka mais daf nit koo xam ne ñaata yoon la dem Hong Kong waaw suñ mbokk coopérative économique yi ñaata yoon lañ dem Hong Kong ñaata yoon lañ dem Dubai ñaata yoon lañ dem sax Jidda nga jegeeg makka sax dañ ci def ay yooni yooni yoon waaye duñ aj makka ba lan mooy seen ngant dëgg la ngant li moom nit kee ko xam waaye la ci gën a bari du doon parce que man istata ilay sabila sabil bi moom day mel ne am nañ ko parce que am nañu yóbbal am nañu yóbbal parce que ñu ngi dem yoon bi itam wóolu bi amul fa luñ koy ragal day itam am nañu wér am nañu wér parce que ñoom ñu tukki dem ci gàdd yi marchandise su nekk dugg fa jëm ak ñëw kay aj màkka ko gën a teg kon loolu nag itam julli daf ko ca war a bàyyi xel waaye doyadal loola ngir jàpp ne sa barab ya ngay siyaare muy sa barab bi fañ la xamal diine wala ba ngay askanoo siyaare ga nga koy siyaare mën naa remplacer makka yéen sax dañu war ne moo gën sax makka ñoom wala iyaasu billah yéen ñoom dañ koy wax loolu nag bu noppi di ko wax boo koy waxat demal askanu ci leneen kon waaye bu askanoo di ci biir l'islam l'islam moom dafa am ay principe fondamental yoo xam ne ak makka moomu ci la bokk ku ko mën da ngay dem defi ko suñu borom tabaraka wa taala tegu ci benn fenn naa nit ki nag ngantam moom moo ko xam comme neexul sa ngan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne mën ngaa dem makka te démuloo ba amoo benn ngan baye boobu booy paas bi ba la neexee nga tuddee sa bopp yahut ba la neexee nga tuddee sa bopp nasaraan waaye bu bu tuddee sa bopp lislaam nekkatoo ci lislaam kon loolu itam nañ ko bàyyi xel bu baax jaamu yàlla itam nag war nañ cee xam ne jaamu yàlla du lu ñuy kant jaamu yàlla du lu ñuy kant du lu ñuy sot jaamu yàlla ak aada bokkut aada mooy loo xam ne moom taw du lii la ko laaj kooku da ngay dem bañ la la taxawal jaamu yàlla da ngay taxaw bañ la la doxal daal yuy bokkut al ibada muy jaamu yàlla da ngay taxaw bañ ne la doxal bala ngaa def lenn am ci dalil tegtal ñu ne la defe ko nii aada nag da ngay def bañ ne la taxawal aada da ngay def bañ la doxal maanaam aada loo bëgg a dogee sa mbubb loo bëgg a dogee rek doxal ba borom xam-xam bu xam ne sax gis la ne la sa mbubb lii kat ab jullit du solo lii mbubb kon kooku nee na la taxawal nga bàyyi moomu mbubb loo bëgg a defaree sa kër defaral ba ko xam ne sax gis la ne la kërub jullit kat waree si ko defee nii nga doog a bàyyi boobu kër waaye l'islam joxewul ay plan yoo xam ne ne nii rek lañ tabe tabaxee kër wala nii rek lañ tañ ñawee mbubb wala nii rek nit ki il faut naa nga bañ la war a togg lekk togg itam loo xalaat ci aw ñam façon togg yi boo bëgg a togg toggal ba bañ lay wax ne la lii kat moom dafa arab ak du ko lekk waaw xam naa jaamu yàlla nag moom doo ci wéy itam xel moom moom ndigal ngay déglu moom bañ na la doxal nga doog a dox fuñ na la sa yem fa nga yem foofu kon jaamu yàlla du doon lu ñuy fenn nga xam ngeen ne kii li ñu bëree bëri seen diine mooy mag mu baax di nee na ma woon daal di commencé te gis yoo xam ne jàkk bu ñu sëlmalee lu ne nga gis ci def ko lu nekk bind ak samadu boo xam ne ji loxo nga koy bind ji baaraam nga koy bind wërale ko ca gannaaw tomb bu ci laal xam nga ña ngay remplacé parce que li ñu ne bidaa bu rek suñu la remplacé bi nga sëlmalee lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ji moo ko xam am na ñoo xam ne balaa assalaamu aleykum wa iliman di daane rek commencé nañu def ab digg waaw balaa daal rek commencé nañu nii waaw ku leen wax loolu ah bàyyi nañ lañ leen waxoon day wax astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah wax allahuma la mania liman atayt wala muxti lima manaa wala yanfahu saljad bil kasad allahuma ahimni ala sikrika wa sukrika wa ibadatik daal def albaqiyatu salat yooyu bu ko defee du tax a géew du tax a di géew ah ci géew boo xam ne boo jógee ci bàyyi ko fa rek parce que géew da nga wax ne pour mu aaw boo jógee rek génn nga biir géew ah bu fekkee sax am dana bëgg yem ci biir géew bi du sot ah toog ngeen nit ñi rek ne yàlla yàlla aar daal di géew waaw toogal foofu kon bul jógee ci géew fekkee yàlla foofu rek la lay aare sa géew boobu rek lay aar du du sotti yàlla ña muy aar wax na ko inna allaha yudaafiu an alladina amanu inna allaha yudaafiu an alladina amanu yàlla mooy défendre ñi gëm yàlla waaye sa géew boobee moom géew bu xata xata xat la ko xam ne moom buñ dafa war aar it moom seen mbir mënu faa sotte kon yooyu yëpp ay dañ ko fen te da ngay gis di ko continuer ngir xale borom kër bu koy def doom yaa yëpp dañ koy commencé roy jigéen ña di def wax ñu ne borom kër gi koy def borom kër boo ko laajee taabaay ko doon def boo taabaay nee na maama ma ko doon def wala góor bu baax boo xam ne ñëw na daal nga defal ko añ bu neex muy def doom kay ma dénk la soo jullee tëram la nga def nii la nga def tomb fii la nga joxañ fii déedéet nit mbirum diine du noonu bu la dee déete ne la la xaala laamu wala xaala rasul waaw dafa nga naan sama sama gan bi waaw jox na ma secret bu am solo secret wàcc wàcc na la fekkoon ne yow na ngay dox mu ne la jàndal fii nga jànd loolu kon diine il faut dañ koy teg ci ay addil la yu leer diine kenn bu ko teg ci defe naa wala diw nee na woon wala mag mu baax nee na woon mag mu baax moom mag moom ba ci gën a baax mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam mag ña ngay wax moo leen mag moo leen gën a baax it kon mag mu baax buñ ko waxee rek mag mu baax moom buñ ko waxee ci teguñ ci kenn xanaa yonente bi la war a doon waaw mag mu baax moo xam bu ñu waxee ngeen a saa baay wala saa maam wala diw kooku loolu diine bi ko xamee ko suñu borom mi ngi naan am lahum surakaa'u shara'u lahum min ad-diini maa lam ya'zan bihi Allah waaw ndax nit ñi ne dañoo am ñeneen ñu ñu bokk ak yàlla ñu leen di tëralal ci diine ñu bokk la di yàlla tëral parce que ku lay tëralal ba nga def rek kooku yaa ngi koy jàmm kooku yaa ngi koy jàmm Adi ibnu Xaatim loolu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon dafa nekkoon ci diine nasaraan bi mu duggee ci lislaam dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ñooñu day dañuy jaamu seen fóore yaag seen labbee mu ne ah déet yonente bi duñ leen jaamu de mu ne ko ah moo tax duñ leen daganalal lu yàlla xaraamal ngeen nangu mu ne ah ah ñoom kay lu ñu wax ne dagan na rek ñu dul ni kat yàlla araamal na ko wala dee mu ne moo tax bu ñu leen araamalal lu yàlla daganal ngeen nangu ñu ne moom kay moom kay lu mu wax rek ñun loola la ñuy def mu ne leen loola mooy jàmm nga képp ku la digal ci bànneexu bakkanam nga def mu tala la ci bànneexu bakkanam nga def kookee yaa ngi koy jàmm boo ko tuddee jàmm boo ko tuddee jàmm parce que ñu ba tey nit ñi daan def dañuy wax naan dañuy jaamu nit kenn jaamuwul nit dafa la jaamu nit ki mooy dem lépp ko diga koo di si jot déedéet mais mu digal la la mel ni ñu koy élève waxtu julli jot ñu ne leen dañ nekk gën julli ñu continuer bàyyi julli ñu ngi jaamu kooku ko wax kooku ko wax ñu ngi koy jaam waaw parce que bàyyi nañ ndigalul yàlla continuer ci ndigalam moom lañ nekk moo gën julli wala moo julli rek loolu sa amoon salaatul xaw bi dana xam ah su fekkoon ne julli am na la ko mën a remplacer ci jëf ju baax kon salaatul xaw bi des ko jàng te salaatul xaw alquran da ko andi téere fekk boo dem di ko baabu salaatul xaw julli buntu buntu julli ragal te julli googee du jàggee dañu ne jamal ba de du jàggee dañu ne ca tool ba de mais ñu ne ci toolu yàlla di xarala te loolu mooy liggéey bi gën a rek ci liggéey bu ñuy liggéey ci kaw suuf ndax suñu borom nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon wal jihaadu fi sabilillahi zirwatu zinamisi nee na woon ra rasul amri al islam rasul amri amri al islam wa amuduhu assalat wa zirwatu sinamihi al jihaadu fi sabilillah kon sommet ba gën a kawee ci jaamu yàlla mooy jihaad jihaad moomu nag ña koy def yàlla mayu leen ñu ne ba jihaad bi noppi doog a jul mayu leen ñuy jihaad nekk jihaaduñ pour tollu de jihaaduñ pour défendre seen seen réewum bopp de mais dañuy jihaad pour yëkkati kalimatu laa ilaha illa allah xanaa kooku kay bu ci tolérance amoon kooku la yàlla wax ne yow mais nekk di ma jihaatal li nga nekk moom julee mais kooku lañ wax il faut julli ak nu ngeen mën a julli kon moo la xamal ne julli bu jotee ab réunion politique laag réunion parti laag réunion lu mu mën a doon waxtu julli jot ñu naan dañ eggale wala nañ continuer wala moo xam lu ñuy tuddee diine la moo xam fu ñu dajaloo di jàngal parce que léegi lu bëree bëree bëri man seetlu naa yu bëri yuy am yu bëri ci ñuy woote ay clinique diine seen cérémonie officielle yooyu ñuy def gars yi fay ñëw daanaka dañu extrait waxtu julli ci la ñuy ñëw te fekk naa ci yu bëri waxtu julli ci la ñuy ñëw nag su ko defee ñu obligé kii ba nag di jël parole ya di wax ba waxtu julli ba da leen koy fekk duñ ñemee ak a jotal wax waaw te gis ñoo xam ne gis naa ñoo xam ne dañ koy tàmbali cinq heures ba dix heures ci guddi waaw ñay jóg di julli ci sax ñu di leen sànni ay kàddu waaw ñay jóg di wàcc ko ne mbooloo mu daaru ci di julli ji ñu di leen sànni ay kàddu waaw loolu man man dama ko fekke sax waaw bokkoon naa ci ñuy jóg waaye ñuy wax ne suñ jotaay bii moo gën julli parce que jotaay bi jaww ñu fi kenn ñu fi yéen ñuy julli ci di tan ak di wor bay bol bay fu ngeen def waaw su ko defee dañ doon bëgg a jóg ñëpp ragal daal di toog ñëpp daal di toog waaw ñëpp daal di toog loolu day am ci dañuy bari duñ bëgg a jóg di bëgg a paralysé keneen ku bëggoon a jóg ñu wax la kàddu yoo xam ne dootuñu la jóg waaw loolu nag bu boobaa itam na nga yëg ne kon yaa ngi jaamu kooku wax loolu teg nga ndigalu yàlla teg ndigal loolu lu ma ta bàyyi xel la naka noonu ak askanu ci lislaam itam ci wàllu jëflante dafa war a feeñ jullit bi ay muamalaatam ni muy jëflante ak askanam ci lislaam da cee war a feeñ jullit bi war na lu mu def rek ci àdduna may ta feeñ ca suuf wa ana min al muslimin jullit bi war na loo def mën a feeñ ca suuf ne li tax ma def ko mooy wa ana min al muslimin wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimin jullit war nga fay la fekk nga ne inna nii min al muslimin waaw bu ñu la fekkoon ca baar ba rek la wala kii est-ce que mën nga ne inna nii min al muslimin moo tax ma ne ci baar bi ah ñu fekk la nga étudier programme bi ñu ne waaye yow li ngay def nag est-ce que mën nga ne inna nii min al muslimin ah mënoo ko mais bu ñu la fekkoon ca jàkk waaye sa waay looy def ci jàkk nga ne inna nii min al muslimin wala bal sa waay lu tax ngay jàng alquran nga ne inna nii min al muslimin sa waay lu tax ngay woor nga ne inna nii min al muslimin waaye lu tax ngay kar inna nii min al mujrimin loolu nga koy wax mu ne ko inna nii min al mujrimin loolu nga mën a wax mu keroogee booba kon jullit lépp loo xam ne su ko waxee buñ ko ca fekkee du mën a wax ne inna nii min al muslimin loola bu mu ko nekk waaw jullit lu muy def lu ne war na buñ ko ca fekkee mu ne waaw sax ngeen tey suma fii damay jullit moo tax waaw damay jullit moo tax am sa tur lool dëgg sa lool xam ne bu ñu fekkee si jàkka da ngay sawar lool ngay sawar lool bu ñu fekkee nga jàng alxuraan nga sawar lool waaye nag bu ñu fekkee ngay def programme périm rek ngay jéem a làq boobu day tax ba duñ ko gis moom nga làqu kon loola moo lay xam ne kon du woon mbirum jullit kon jëflante la ci jiitu mooy jullit na muy fàggoo bu mu xër rek ci fàggu alal ju bari parce que alal ji mooy rek la boo xam dafa am lu ko tax a jóg waaw dafa am lu ko tax a jóg mu ne oto bi essence bi nga ciy def essence bi rek jox na jóg pour oto bi mën a daw ba eggale ci dëkk bu mën a tax a jóg wutul essence ba rek soo ca yàqee oto ba ci wutul essence ba ba oto ba soo amee essence bay oto ba duutu dem kooku mu sotti waaw alal ji nga wuti àdduna oto jaamu yàlla la la waroon a defal essence pour mu mën a dem léegi soo ko wutee noo xam ne soo ko ca sottee nag moom kii ba yàq oto ba yàq lu ci demee ci booba essence jëru kon la ngay wut da nga koy war a tànn da nga koy war di tànn parce que boo xam ne ca joxate biir wala joxat ca leneen du baax kon la ngay wut dañ koy war a tànn ba mu lew ndax kat alal ju lew moo la war a mën a alimenté ba nga mën a jaamu yàlla mais koo xam ne alal ju xaraam ngay dundee say cër duñ mën a sawar si jaamu yàlla kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na bépp yaram woo xam ne dafa sax ci alal ju xaraam moom la borom di am ba dundee ba am yaram woowu yaram woowu sawar a moo ci gën a yëg bu ëllëgee te loolu ku koy def yaa ngi yore waale sa àq sa njaboot sa njaboot nga ne di yow ñu leen ci islam ba noppi dundee nga leen ci alal ju xaraam pour jubbanti leen day def jubbanti leen day def kon nag jullit bi na fàggu fàggu leen bi law inna allah huwa razzaq suñ borom nee na mooy wërsëg rek li mu wax mooy fam ko fii maanaam ci biha dox leen ci kaw suuf wërsëg nag koy wut da ngay dox ci kaw suuf da ngay génn dox waaye doo tëju du tëju fii barab xam ngeen fi mu ne ñu bëree bëree bëri ci ni ñuy wuti alal fi mu nekk ci pas-pas nit ñu yàq ñi ci la nit ñuy dund fi mu nekk waaw ñu bëree bëree bëree bëri nit ñi gën a bëri xaalis ndax xale yu bëri surtout ñu jàng arab ñu ci bëri fi mu ne seen xel la muy nekk mooy dugg ci affaire tarayax yooyu dañuy tarayax bu ñëw indi ay millions tabax ay kër defal lu nekk su ko defee nag xel ma la mu nekkoon ci wàllu di jàngale yu bari am na koy toon jàngalekati arab yi sax di wax na ñoom ñoom ñetti saa rek lañ am ku ci bëgg a jóg daal nee na ñu ci gën a bari dañuy taalim di jàngale léegi nag bu fekkente ne taalim ba doxut nee na ñu jëm ci tijaara bu tijaara bu doxul ñu dem ci sariyaax sariyaax bi nag foofa dañuy sopp ñu te baree baree baree bari xale ñuy dem ndax bëgg rek alal ju bari te noppale alal ku ko bëgg doo ko duggee ci jëndi ay cuuraay yu teer xotti ay mbubb yu weex dugg ci néeg ne da ngay da ngay wér te fekk da ngay wér dal sa bopp waaye da ngay wér dal ay nit wér dal ay nit ngir faj seen i soxla ngir lañu la cay jox loolu du fàggu wiin woo xam ne wu teere la du fàggu wiin woo xam ne wu dagan jullit na muy fàggoo suñu borom def ne fa isaa quliyati salaatu fan tasiroo fil ard tasaaroo leen ci kaw suuf tasaaroo ko tasaaroo koy dugub nit tasaaroo leen ci kaw suuf bopp taxoo min fadlillah ngeen dem fàcc ci xéewal ngeen delloo xam ne fam soo fii mën a ci biha dox leen ci kaw suuf wakkuloo min rësti ngeen lekk ci li ma fi def ci kaw suuf kon nit ki na fàggu ci fàggu wiin wu lew da dem liggéey ñu fay ko wala mu dem jaay jënd te watandi ko riba def daal bépp liggéey boo xam ne bu sare am na woon kon kartak gerek ay pexe ba lekk alali jàmbur ak sàcc wala légal nit ñi bañ jox la loo xam ne joxuñ la ko seen téye bakkan bëgg a sàmm seenu der ak bëgg a mucc saw làmmiñ moo tax ñu jox la ko loolu itam du fàggu win wu arab du du wadaga du fàggu win wu daga légal nit ñi ñaawul làmmiñ ba mën a lëj ga koo ñëw il faut mu lamb lam am jox la loola boobaa ku ko bëgg a def métier mu ngi yëg ne nekk ci métier bu dee yaa xam sëriñ la parce que ñoo ñoo ñoo ko fi def waaw ñoo ko fi def yor làmmiñ wu ñaaw woo xam ne ku la jox nga gërëm jëli rajo gërëmaate gërëmaate ba ñu joxewul woon lu ku la jox nga xaste xaste xaste ba ñu joxe woon ñoom di fonkale kuréel bi su ko defee defe nañ rek am na ñoo xam ne seen programme bépp foofu lañ ko teg bëgg di ñu ci loolu loolu du faggu wiiñ woo xam ne wu dagat na suñ borom daf ne yaa ayyuha alladina amanu la taakulu amwalakum baynakum bil baatil bu leen lekkante seen alal ci neen neen mooy nit ki li nga def ba lekk alalam du lu ko neex du lu ko neex taggaate taggaate taggaate ba mu génn jox yow li nga wax ay maamu moo la gën a xam ne maamu waaw diwa la jur diwa jur sàngam diwa jur sàngam pour lekk téeméerum nag ko ko maamam yooyu dox moom ñum jur moom moo la gën a xam ci tudd gën a leen tudd rek nag amul benn njëriñ naka noonu ci wàllu sëy sëy itam nit ki bu koy def moo xam góor la wala jigéen la loolu ak askanam ci islam daf caa war a feeñ mooy bu mu ko teg ci bànneex na ko teg ci nattukaay yi diine indi parce que su fekkee da ngaa gis koo xam ne bari na alal rek yow jigéen nga daal ne kooku naa ànd ak moom seetoo diineem seetoo jikkoom seetoo njubam seetoo daraam yow góor gi itam da ngaa gis koo xam ne rek taaru na wala bokk na ci famille boo xam ne bu ñuy yéem la soo ci tekkee jabar di ko tiitaloo doomi diw sàngam laa yor di tiitaloo lool tax seetatoo ca diine seetatoo ca leneen loola yow bu boobaa fekk askanu ci lislaam bi ci côté sëy bi wala bëlatu suñ borom lu mu waxoon wala tunkihu l musrikina hatta yuminu wala abdun muminun xayrun min musrikin wala ahdeko nee na koo xam ne góor la bu pas-pasam baaxul diine mbir bu leen ko may jabar li feeg gëmul ngëm gu wér ñu ne waaw su amee alal nag mu ne nag ak moom mën a am wala ahdemakum wala ahdemakum moom dugal na leen ak lu la ca mën a yëm parce que am na ñoo xam ne li leen di yëm ci nit mooy alal am na ñoo xam ne li leen di yëm ci nit mooy ab taar am ñoo xam ne li leen di yëm ci nit mooy fi mu bokk am ñoo xam ne li leen di yéem ci leen mooy pouvoir ak de biir suñu borom ne ak lu la mën a yéem ci waa ji waaye pas-pas bi baaxul bu ko may jabar yow jigéen nit bu ñu la ko bëggee may bañal dul tey ko alquran la wala bëti bu ne wala tankihul musrikaati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun xayrun min musrikatin walaw a'jabatkum yéen góor ñi itam bu leen takk ku jigéen koo xam ne pas-pasam baaxul musrikaat la wax yow sax kaafiraat mais musrikaat musrikaat am na ci biir jullit ñi suñu borom moo ne woon wa maa yu'minu aktaruhum billah illa wa hum musrikun kon musrikaan yi am na ñu ne ci biir askanoo ci lislaam te ay musrikaan la ñu dañoo bokkaale ñooñu nag mooy ka pas pasam baaxul soo ko bëggee teg ci loolu lam daan takk ci ay xarga kuuka yoo xam ne dafa juyoog lislaam nga ne yi yaayam ak koo takkaloon wala bàyyam ak koo takkaloon du ko tekki soo ko julliloo mu ne moom du julli soo ko muurloo mu ne moom du muuru kooka su la ca taar bëggee jóo ba nga takk ko du mooyu yooyu yëpp dem ba ca biir ba taar ba xaw a rus la nga jox a taxaw naan ma koo fii boobu il faut nga julli te fekk gisam nga ko ca njëlbeen bi ah ñu ci bëri itam bi nañu ngi engagé seen i soxna te fekk na ca njëlbeen bi gisoon nañ ko wolof yi léebu nañ ko nee nañ la feeñ ci sëy rek nuyoo woon na ci ngoro dañ koo fay waaw lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro dañ koo fay dañ koo jëlale loolu kon mooy sëy ba kon dañ ko tegul woon ci asaasul islam mais suñ ko tegtagoon nga natt ko ci ngëm yàlla ba ngëm yàlla nga doon ngëm yàlla bu wér bañ ko teg ci alal bañ ko teg ci juddu jigéen ji itam def noonu su ko defee ànd boobu départ ba ngir yàlla lay doon ñu dimbalante ci yoonu yàlla dana yomb su ko defee wa aatiruhunna bil maaruf yi suñ borom waxoon ànd leen ak ñoom yor leen ci nekk loola boobaa day doon loo xam ne lu yomb la naka noonu askanu ci lislaam itam am na lu mu lay laaj ci noo war a yare say doom doom da nga yëg ne responsabilité bi la yàlla dénk la fitna la innama amwalukum wa awlaadukum fitna fitna la dëgg la bànneex a ngi ci waaye nag fitna la ndax test la ndax da nga leen war a yar yarub lislaam teg leen ci yoon su fekkente ne yow ab jullit nga nga am doom lañ la ca sant mooy tuddee ko tur rafet nga nodd ca nopp lay joor ba fayal ko am xar ngénte ko bu waree jàng nga jàngal ko jàng nag la ca jiitu mooy jàng alquran karim iqra bismi rabbik sa doom jàngal ko alquran bala nga ko jàngalee leneen parce que nit ñi ni ñuy defee ne njàngum tubaab bi moom lañu war a jiital ba sa portaat diine ji léegi koo xam ne ma ngay say école daa ko gont waaye bés bu jàngal ñu ne dem na dem ca sañ daara ba fee moom nga xam ne loolu lay bokk waaw xam nga dañ koy bokk te suñ borom dana woon wabtaqi fii ma ataka allahu daar al axira mboolem lu la yàlla jox wut ci këru alaxira ngay fay say doom ci école yi catholique di ca fay ay weere ay quarante mille ay soixante quinze mille seen daara ba kay téeméer ba ngeen fekk da koy tëg day ñëw ci buntu kër bu lay ci mooy lëj la waay kii moo bëgg xaalis nangam nangam te kat fa nga yóbbu sa doom ci ñoo xam ne du ñu ay jullit ñu lay jàngalal say doom loo xam ne léegi ay adduna ngi ciy wut kooku numéro tax dem ah kon kooku yow adduna moo la xaju suñ borom ne woon loo am tabax ci këru alaxira wabtaqi fii ma aataaka allahu daar al axira ne nag wala tansa nasibaka min addunia mais gars yi dañoo raamel sa aaya bi gars yi wabtaqi fii ma aataaka allahu daar ad dunia la ñuy wax léegi nag wala tansa nasibaka min al axira mooy loolu mooy su jàngee ba ñëw na dem ca sëñ daara ba jaar waaw su jàngee ba ñëw bis buñ jàngiwul daal imaam wala dara na dem sëñ daara waaye même temps bu ay tamit bëgg a jot sax léeg-léeg ñu jël benn waay ci kër yooyu di ko jàngale la alquran ci xale yooyu jàng école mais su ñëwee pour xale yi ñëw jàng rek day am problème léeg-léeg sax si lay bëgg waaye bàyyi ko rek dañuy réviser seen dañuy jàng seen i lato su egg tamit jubee mu ne ko mën nga ba dëggee ñëw rek parce que ñoom dañuy dañuy jàng seen i lato fi nekk lëg nga lool waaw su at ñiwul sax bu bëgg ñëw seen jaare moom jàngale moo diis moom moo xam ju bare jooju ma bóotul moo tax at yooyu ah kon ñooñu àdduna moo leen tax a jóg ku yar sa njaboot ci loolu nag te jàpp ne yaa ngi askanoo ci lislaam mu wér askanoo gi rek wérut askanoo gi wérut parce que damay faral di wax ne loo xam ne néeg boo xam ne dafa am juróomi bunt ak néeg boo xam ne dafa am benn bunt wala soxla pour juróomi bunt ñu ne la fexeel ba dugg ci ñaari néeg yëpp mais bunt yi nag dafa am heure yoo xam ne su jotee day tëju waaw ñu ne daal néeg bi moom am na juróomi bunt moom bu bii tëjoo dañ toog beneen bi beneen tëju buñ toogee beneen bi beneen tëju bii rek benn bunt la am te moom bu tëjoo jeex na waaw léegi ñu ne ñaari néeg yëpp rek la nga fexe ba dugg ci waaw boo ñu ko war war a dugg benn borom bunt bi parce que beneen borom juróomi bunt soo fekkee ñett yëpp tëju wala ñeentee sànq la ñu xaar benn ba nga dugg ca kooku nag mooy adduna alaxira adduna benn porte la am pour mën a sowe mooy diine alaxira alaxira sabla alaxira benn porte la am pour mën a sowe mooy am diine adduna porte yi mu am pour mën a dund du jeex ah adduna porte yi mu am maa di wax ne koñ jàppoon ci njàngam mu mujj dem ba noppi gars yi ya ko doon jàng sax mu am woon dama leen gis say tëj waaw gars yi jàppoon wala gars yi ca dëj borom ba ca ko mu am woon ñu rek ay comptant baram di ko liggéeyal moom ñu ne woon at mi ci at mi wut moom waaw ci at mi wut mooy seen chef léegi loolu gis nañ ko bi ba tey kon force boobu tëj na ñëw fekk na beneen mu ubbi ko mu dugg ci mais force bu diine moom su tëjoo kon jàpp ci diine ñu gis nga dugg feneen kooku moo mënta dekk man kon nag doom comme da nga bëgg mu am àdduna am alaxira te alaxira benn porte la àdduna porte yu bari na njëkk koo assuré force alaxira ba pare force àdduna yi bu mu taxajal man ko am mën na nag jàng diine ba pare jàng diine soxla parce que ci àdduna mën na ci joxe misaal rek mbokk ñuy toog ni ba mu jël du école arabe lañ ko dugaloon mu jàng arab jàngal sax école arabe la doon jàngi njaay ko comme sëñ Samba nii foofu la jàngee nga dégg ba am baccalauréat di am léegi bi lu mu nekk ne ingénieur aéronautique la nekk ne nekk professeur de li gën a kawe di am ah bu mu ñëw fekk rapport boobu tegewul mu dem dugg ci waaw waaw loolu la mais ñu koy wax imam ñëpp imam lañ ko téye rek assuré wa ne loolu la ah kon de jiital sa diine ba pare lu tax àdduna ma laaw ku amati doom jiital ko mu jàng diineem ba pare li nga opérateur yu bari yu nekk ci ay syndicat ku ne soo leen jëlee daara lañ leen sàmmi woon de ñu jàngi ca daara jëm ba kër kër ba ñëw ba ñu ñëw dagaam jii dañoo lekk paas boo demee waaw dañoo lekk paas ñu ñëw di gàddu ci finalement yi di wër ba yàgg ñu def saabar ba yàgg ñu def ngi digus kon ba yàgg ñu andi kon ci def ñu am nga sa gaa yi nga xam ne ñoo tëboon ñoom wuti àdduna bi waaw jël ca sagaru bërëw yi wala sagaru li tax gaa yi embauché la waaw di leen fay lu leen neex la dañu leen defee du leen jaar la ñoom waaw te ñooñu boole ci rek xamuñ dara seen diine yi ne boole waaw moom àdduna ba perte nañ ca ba noppi seen diine xamuñu ko nag waaw xoolal loolu la yàlla yóbbu ñu dund fii lépp de bay moo nga vérifié nga seet da nga koy gis de da nga koy gis kooku nag kon doom dee fa teg ci yoon bu jubboo te waxuma la loolu sax bay boo sax nga tekkee yoonu àdduna ba moom mu teel a dem réussir ko mais doomu aadama bu nekk yàlla àdduna daf ci dul def loo nit ci lu mu ko dul fayal yàlla dafa bëggoon li ngay sonne ci say doom doom yi dañoo néew doole parce que doomu aadama benn nit force la am benn kattan la am ñaari néew doole sax allahu allati xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin quwatan summa jaala min baadi quwatin daafan wa kayda maanaam benn doole moo am ñaari faiblesse sax faiblesse bu njëkk bi mooy bi nga doolee gone bi ci des mooy bi nga màggatee léegi bi nga doolee gone tey way jur lañ bëgg ñu assuré la ko bi nga màggatee tey doom lañ bëgg ñu assuré la ko fayee la bor bi nga ñu assuré la ko yow nag su fekkee waaye nag ci kaw gone ya kat bala ñu laa mën a assuré boobu mën laa fay bor boobu bor bi leen la baroon rek la ñuy fay suñ borom wax na ko war a xam xuma kama rabbayani saxira wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan ma'rufan waxfid lahuma janaaha zulli min rahmati waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saxira kama day jël kàddu bi day fës lii de yàlla yàlla nga leen yërëm yërmande ju mel ne dañ ma yërëmoon bi ma nekkee gone bu fekkee sa doom yërmande tubaab bi nga yërëmoon bi mu nekkee gone jël sax saag mbaa jàng nga mbaa réussir nga mbaa nangam nangam moom itam bu màggee yërmande tubaab la la yërëm yërëm mooy am sabab mooy lan mooy ku mënatu te produire dara bokkatu waaw bokkatu ñoom loolu la société bi daal ku mënatu la intact lu may di di exploité di lekk rek consommer rek nga mën kooku moom bokkatu waaw bu dee tubaab yeeg dañuy tabax ay kër yoo xam ne fa la ñuy déposé ci màggat bi bu dee fii itam gars yi dañuy déposé ngeen màggat yi ay caaro rek ay pikit dem xam résidence toog waaw dafa ñu ne xanaa góor nga nga am nga fekk naa te kat fekk nga ne kon dañ école sa ñëw léegi nga jóge ba dem par résidence bu kër boo xam ne ku xaj ak tubaab boo xam ne kenn xamul fu mu jógee góor ga dafa ñëwee daal foofu yaa tubaab ya ba sànni jigéen de léegi nga jaar parce que lan koy jox sarax nga koy tuddee góor gi sarax naa ko foofu benn kii ah fa sarax ah koo xam ne moom lan doon def foofu nga egg yëpp ay effort wala nga tax a egg nga xam ne bu bu la fekkoon sa biir ni sax doo ko parasaate say gan bu la fekkee sa biir ni yow say gan ak i xabtaaram yu la ko yërëy ah waaw góor gi ma bu dee nga kooku benn góor la rek bu fi ñëw waaye du doon nangu ne mukk mooy sama baax waaw wala si yaay ñëw lam mel ak yooyu doon màggatu Sénégal doon nangu mukk ne kii mooy sama ko ko koo xam ne dem nga nag bay di ko rut di ko présenté di wan ne sa bopp nga yar sa bopp nag yar bu mel noonu boo xam ne noonu lañu bëti ko xeeb la kooku waxuma ne àllaaxira rek fanaan mais adduna sa commencé nga cekkat waaw adduna commencé nga cekkat nga xam ne yaa koy diisoo naan sama doom ak sama kii mais mu dox kan na sama bàyyi duut la ci borom yow kay yàlla moom directeur boobu mooy sama doom waaw nag moom moom du ko wax du du ko duut la ci borom yow te nag bu ak alaxira nag ngeen doog a def nag ngeen doog a def nag dina am alaxira suñu borom tabaraka taala mi ngi nekk li ñoo xam ne dañu leen di atte ba pare ba seen mbir walaa bal bi ñoo yëpp walaa bal ñu bëgg leen ñaa dem ñaa dem bëgg a dem suñu borom ne eh waxi koogum nee leen nañ taxaw innahum masuluun dafa am lu ñu leen di laaj sa doom ji est ce que boobu juddoo tegoon ko fi ma la waxoon nga fekk ko est ce que jàngaloon nga ko est ce que yoroon nga ko ci lislaam sa soxla ci est ce que tegoon nga ko ci yoonu lislaam ñun ñëpp ñu xoolee ma ne daal ah ñu dégguñu woon ci loolu man daal moom amee juróom ñetti at lañ ma yóbbu ci sardin ba sardin ba tax da koy dañuy julli ñaare léeg-léeg ndax nee na ñoo ñoo daq yor ba ma amee ay juróom benn at lañ ma dem dugal ma école te laa nekk ba toll ni ma toll léeg-léeg papier ju rafet sax du ko mokkal kooku rek su boobaa kon ñu ko bakkaar ya waa jóge ci ñàkk xamam nga ngeen séddoo ko yaag moom te tuyaaba yi nga amoon yow itam ngeen séddoo ko su ko defee tuyaaba yi du leen doy te bàkkaar yi fekk leen benn ngeen bokk leen jafe moo tax suñu borom bi muy wax musum leen sawara daf ne boole la waa lañ ci seen njaboot xoo anfusakum wa ahlikum naaran ala inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama perte mooy ku perte boppam perte la njabootam te sa njaboot suñ pertee nga pertaale ci biir soo pertee yooyu sa njaboot perte kon genn compte la kon bokk na ci lislaam li mu lay digal mooy nga yar sa njaboot yarub lislaam te mooy jàngal leen alquranul karim waaye nag yow doom itam dañ lay digal nga topp way jur yow doom pour nga dimbali sa way jur pour nga mën laa teg ci lislaam yooyu da nga koy topp da nga koy jox àq bi mu am ci yow da nga koy topp di ko déggal waabudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara waaye nag ngeen rafetal jëme ci seen i way jur ngeen rafetal jëme ci seen i way jur waaye nag topp way jur yooyu itam nag topp ka daa am fu mu yem lu tax nag mu lay dugal ci bokkaale bare waa na ñoo xam ne la ñuy def ci bokkaale soo waxee ñu ne góor gi ma ko dox seen bàyyi leen ko dox wala seen yaay xam nga yaay yeeg yooyu moom yooyu yëpp lañ ci nekkee buñ déggee seen doom daal tegoon seenub sër képp buñ déggee mën la dara andi sunguf andi cëwri andi reen andi woote ci ndox sa ngoon lii doom nangam nangam jamono ji neexul place bii ñoo fal su ko defee nag nga daal di def ci waxee nga de sama yaay moo ko defoo loola nag bu boobaa buñ la dee tàbbal ci bokkaale suñu borom tabaraka wa taala dana woon buñ la ay waajur bëggee dugal ci loo xamul baña buñ la bëggee dugal ci loo xamul baña wa wassayna al insana bi walidayka la xosna waaye wa in jahadaka ala an tushrika bii ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma mais bés bu ñu bëggee bëreeg yow ba dugal la ci loo xam ne xamoo yow sax loo xam ne bokkaat la waaye yow daal xamoo loo xamut waaw loo xam ne xamuloo ko takkal xaaw gi daal am na lu koy kat foog xaaw gi dañ koy faje moom xamuloo ko kon bu ci dugg sangoon lii day musle ci nangam loolu xamoo nu mu cay muslee te itam du lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kon loolu bu ci dugg mu ne wasaaxe kuma fi dunya maarufan na nga ànd ak ñoom rek ci adduna ànd bu jekk waaye te diine nag wattabi sabila man anaaba ilay demal seeti ku jaar ci yoon wu jëm ci mel yàlla nga ànd ak moom ci diine te say way jur bu ñu ne ko ci diine ju wér àndal ak ñoom ànd ak adduna waaye bul ànd ak ñoom ci diine bul ànd ak ñoom ci diine wattabi sabila man anaaba ilayhi kon melokaan boobu il faut nit ki mel ko ci wàllu jëflanteem ak digganteem ak nit ñëpp nag mu di leen bëggal li mu bëggal boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nag kenn ci yéen ngëmam du mën a mat li tee bëggalul mbokk jullitam li mu bëggal boppam julli ñi suñu defoon loolu dem rek mooy xew seen diggante waaye iñaanante beeg bañan bee bañante beeg yàqalante beeg kenn ku nekk nga bëgg am say say intérêt say bien ci kaw say morom loolu ay jullit du ñu dunde noonu fi mu ne li gën a jege ci réew mi fi mu ne mooy jënd parce que ki ngay jënd dafa fas yéene nax la ki ngay jënd xam ne mbokkum jullitam nga mu waroon laa yéene jàpp ndalal la ni jaay la ko am ci tuyaaba ci jege gi mu la ko jegee ñor waaye mu fas yéene la ci ndax léeg-léeg man sax damay jégg prix boo xam ne ak la ñuy mujj jaay sax man damay waat waaw indi loolu boobu boobu te kat da ngay boole ay ngiñe ki waat kooku mu leer na kon dafa pare woon pour naxee moom loolu ak càcc la loolu ak càcc la luy jël jële juróomi téeméer nga def fukki junni ah xam bu dee ko mel ne man man tuddee moom day jàpp ne bu fayee juróomi junni moom def lay njàmbaar dinañu la wàllu al kooku nga ko jàpp dañu waa ay ñu fay bu génnee kaay def naaw kañ tey benn waaye laa dajal boo xam ne dagg naa bopp ah te loolu booy li nga am fi mu ne jënd bi ne dafa laaj daanaka école bu ñuy formé nit ñi ci jënd bi ne fi mu ne ku jënd rek ñu dax la sax rek waaw wala ba xanaa nga dem ba nekk ci provision comme ñoom bokk ci ñoom xam nañ koy defee ñoom waaye koo xam ne attana jiini waat ne lii laa ko jënd loolu ba li ma ko jënd sax ëpp na loolu dem baa bu mën a indi fay kon kooku li muy tekki mooy dafa pare woon pour naxe ku pare pour naxe nag mooy li nga yéene sa bopp yéene woo ko nit ñi ndax bàkkaar yi bàkkaar yi li ñuy bari bari bari dafa am ñetti bàkkaar yoo xam ne moo jur bàkkaar yëpp ñetti bàkkaar moo jur bàkkaar yëpp bi ci nekk mooy rëy al kibru kooku moo alak iblis ku nangu la jàng dii rek ku ndax la xamoo ci nangu wallaa de yëpp ci kaalu kibru nga dugg rëy rëy ci nga dugg bàkkaar boo tudd ci bàkkaar yi rek am na fu mu mën a dugg waaw koo xam ne bu ne nit waxee nga ne kooku maa ko mag kooku maa wax diine kooku maa ko ëpp nangam man diwo ma war a jàngam wala xamul nangu woo laaj wala man bu may laaj diw lay laaj yooyu yëpp wala nga dégg dëgg ba noppi nangu woo ko topp loolu yëpp kibru la rëy la day tànk ñaareelu bàkkaar ba mooy alxasan mooy kiñaan kiñaan moom mboolem lorante bu nekk diggante doomu aadama yi ak seen morom ci kaw suuf kiñaan na ko lal suñ boo ma koy wax watlu alayhim naba ab nañ aadama bil xaq id qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wala ñu taqabal min al axar mu ne jàngalal nit ñi xibaaru ñaari doomi aadama yi ci dëgg aadama dafa amoon ñaari doom ñoom nag ni ko mu fasilo ñu yegg la dañ daan def xam nga boobu nit ñi bëreegu te nit ki ci jabar soxna ki ngay takk lu mu la gën a sori moo gën aw nag daan jurandoo ñaari doom ci biiram ñu daan def nag bu juree doom bu góor doom bu jigéen yow sooy takk ka nga bokkalul biir koo ngay takk ba nga xam ne yéen yéen a bokk sax nga ni mais nag bokk leen am amul kon mu xaw a soree tuuti kooku nag moom xamu bokkal biir nag moom gën a rafet mu ne moom ci bokkal biir moom lay takk ne daal kee moom du ko takk daal di nag ne kon moom daf koy ñu ne nag nañ seen ñoom ñaar kan moo ci gën a nekk ci dëgg nañ def ak jaamu yàlla ku ci yàlla nangul ñu xam ne yow yaay nekk ci dëgg kenn ku nekk daal def ak jaamu yàlla kii ak jaamu yàlla am yàlla nangu ko malaaka yi jël ko yóbbu kenn la mu defoon malaaka yi bàyyi ko tam mu daal di ko def kon danaa la rek mu ne ko la in basarta ilayya yaddaka li taqtulani maa ana bi baasitin yadaya ilayka li aqtulaka inni axaafu llaha rabbal alamin mu ne ko soo tàllalee sa loxo man bëgg maa rey man de du ma la rey man dama ragal yàlla fa tawwaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin gis ne nafsuhu bakkanam moo ko poussé mu rey mbokkam daal di bokk ci ñu perte inaan moo tax mu rey ko foofu nag fa la soqi koo nag bépp lox ci lay attaque da laa inaan ci lay sàcc li nga am ba mu di ko sàcc bu ni mu ko yéene boppam bu la ko yéenewul te la koy dàq itoog dina jëw di yàq sa der considération bi nga am ci nit ñi ak fa la nit ñi teg loolu la inaane bëgg dafaa waxal wax ju ñaaw joo xam ne kenn dut la teg kenn si kon kooku daf laa inaane kon mboolem lor bu doomu aadama yi lor morom rek alxasat moo ko la inaan te yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na day lekk ay yiw comme li sawara di lekk nag kon loolu ay jullit dañ ko war a génne ci seen biir maam ndaxte kat topp ci ab jullit di wax mi ngi mel ne ngay liggéey ñu di tuddaale yu kenn wala ñu embauché la kenn ngay liggéey saa bu weer dee nga dem ca banque ba laajte compte bi ñu wax la ko nga verse ko waaw te xam nga compte banque verse te yomb na mais ciiri ci yombut ah xam nga léegi boo ñëw ne wax ana compte mbay ñang ñu ne ma ngi nii ma ne def leen fukki dindi en fait ba ñu ñu lool ba ñu ñu lool buñ la laaj loo joteeg mbay ñang xam dara ñu fa def mais bu ma taxawaatoon ci saa si ne ma joxal nga sama fukki dindi dana demal ba mbay ñang ci yow demal mbay ñang defal la teg ci ne ko ma dox ma dox la ko dox waaw moo tax fi ne soo toogee di verse ci compte nit ne mooy toog di ko jëw yaa ngi verse ci compte mais soo ko bëggoon a retiré waat yàlla dinaa la demal ba mu jéggal la waaw demal ba mu signé ko jéggal la ma doog la ko joxaat waaw surtout yàlla sa julli yi nga doon doon yëpp ngay jëw waaj bañ def ko ci compte nga ne yàlla tuub naa léegi ma bëgg a jotal sama julli yi ba defaat ci compte waaj yàlla ne la waaj yàlla ma la jéggal de moo koy signé te xam nga ne loolu nag yombut waaye moom bu ñu xamee ne moom seen compte moom verse bi ci ay jullee ki koor ak i anaka ii kooku moom bëgg ñu jéggal la moom moom moom moom du yomb du yomb pour dëgg buy xasee dem ba yomal xew te nag loolu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko nee rek ci payit mooy ki nga xam ne ñëwal na yàlla ay julleem normal ay kooram ay asakaam jaamu yàlla yëpp normal waaye ñëwul ba ci ko xool ndekete yàqoon na derub kële xooloon na deret yi kële jëloon na alal yi kële xasoon na kële ñu fop tuyaabaam yooyu wert ko ci compte ñoom matanul ñu fop bàkkaari gaa yooyu werte ko ci compte moom waaw fop bàkkaari gaa yooyu defal ko ci compte nee na nag mu daal di fekk benn ci bakkaar daal gën ko kon jullit lay sàmmante digganteem ak moroomu jullitam di ca wax lu rafet di ca jot lu rafet di ca dox lu rafet su ca déggee lu ñaaw itam mu bañ a tasaare loola suñ boo ma ngi naan inna alladina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalamu wa antum la taalamun ñi nga xam ne nee na bëgguñu lu may dégg benn affaire bu xew bañ sol seenu daal ku nekk ñu yëgal na ko am na ñoo xam ne rek mooy seen liggéey boo tukkee ñëw sax ñoo ne njëkk ñëw ah yow di dëkk bi tas na sa gannaaw diw di def na ci nangam diw di wax na ci nangam loolu suñu borom nee na ñu koy def dinaa leen mbugal fii àdduna mbugal leen alax julit daa waroon su déggee ñaaw ci ci moroomum julitam walaw laa istamictumuuhu zanna almuminuuna walmuminaatu bi anfusihim xayra waaw julit daa war su déggee lu ñaaw ci mbokkum julitam mu góor wala mu jigéen mu jot ci moom lu baax mu jot ci moom lu baax su demee ba siiw ne lu baax loola ñuy wax kat mën naa am ci ñaawte bootul noonu la mu ne man du ma ko siiwal walaw laa istamituma qultum maa yaqulu lana an natakallama bi hada waaw julit su déggee moom julitam lu ñaaw da koy wutal ay ngànt ñiimal ko su demee ba mu tax ne moo ko def mu ne man de kon kenn du ko déggee ci man man de bu dee man foofu la yem waaye nag ah ngeen ne moo ko def dal di jóg kenn ku nekk li ñu def ko ko ba noppi nag jàpp ne julit nga kooku bëtam du melokaanu julit bu wér muy askanoo ci biir l'islam ñetteel ba mooy al xirf mooy xirf xirf xer moom moo dugaloon aadama ci li ma nekk ci li ko yàlla terewoon waaw kon al kibru moo alak indi xer moo génne aadama xasas moo tax jenn doomi aadama ji ray ci tëgal xer xam nga xer moo fi nekk boo gisee yi dagan a fàggoon ni mu baree nga bàyyi ko di gàtt da nga xer rek da nga xer ne morom nga dem jege ne li ñu mën a def ci liggéey yi bari na lool place liggéey kay moo gën a bari kàttukaay yi xeeti naan yi ñu mën a naan te mu dagan moo gën a bari yu xaram yi te moo gën a yomb butéel bu ndox ma set rek nga jënd ñaar dërëm naan sëñ bi kooku mu gën butéel bu wex xat boo xam ne da nga koy laata ko fële nga dugg fa moom bokk naa ne ab diir itam diis la mën a gis ah yooyu coono xamoo bakkaar dafa jafe bakkaar bakkaar jaamu yàlla ko gën a yomb moo tax suñu borom naan lahaa maa kasabat wa alayha maa kasabat xoolal ni mu si doolee saa gi dafa ne lahaa ñeel na ko moom dafa ara maa kasabat kasabat lu yomb la def ci lu baax mais nag daf ne doomu aadama li mu fàggu ci lu baax moo ko waaye lam jéem a fàggu fàggoolu ci lu bon ba tey moo ko moom lu bon moom xoolal da koo jéem jéem waaw ba nga koy jéem a tox day tox di soqat fii di kër këri fii ba di soroxam ba mujj ko mel xam nga da koo jéem rek mais léegi ba jëm di nàmp nàmp bu so bu soroxat nàmp bi nga xam ne moom naturel la ci moom léegi bi day jub tey rek nàmp tey du ci soroxaan sax du ci soroxaan parce que loolu naturel la yàlla yi nga xam ne mënoo ko ñàkk yépp moom dafa naturel ci yow boo koy def doo ci am benn problème looy def di ci ami jafe-jafe rek xamal ne naturel lu bokkul muy mel ne oto bi pièce bi di rek kooku ci dafa doo am benn problème mais pièce dañu yàbbal da ngay dem muy gër gër ñu ne lii baaxul de nañ ko daggat nañ nattaat nañ ko daggat am sa pièce oto bu yàq nga dem di tëggee ñu tëggal la ko voilà normal la dem dina yàgg waaye bu dee bu ca defoon la koy defee kenn du koy mooy doomu aadama yi ko yàlla digal bu koy def di ci am benn problème dafa simple parce que moom moom a dëkk waaye yi ko yàlla tere nag moo ciy entraîné boppam di ko entraîné ba meen ko mais dëppawul woon ak bakkanam waaw dëppawul woon ak bakkanam moo tax mu ne laha ma kasabat wa alayha ma kasabat kon dafa baax moom mooy li nga xam ne moo gën a yomb kon xir boobu lii tam mooy dugal doomu aadama ci bare bare bare bare bare def takk riba yeeg karta jël alali jàmm rek yépp xir la xir mooy xeeb liñ la jox lu aadama li jox ne ko garab gar yi foofu laa min xaaral xam xay sirtuma xay sirtuma ajjanaa ngoog ak ajja ni mu réyee yooyu la xay sirtuma benn garab rek ñu la war a taqra ba hadihi sada mais sëñ bi loolu parce que ko mën am ay dëgg la yàlla moo ko dogal suñu borom ne wala xad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya da ko fàtte wala najid lahu azma fekk nag muy lu yàlla suñu borom tabaraka wa taala dogal waaye misaal la rek doomu aadama ni mu xële yi ko yàlla dagala la bu dee ci jigéen ñi nga am soxnaam ak yéppam nga xam ne amu ci benn problème ci jafe-jafe suñu boo toogoon ci jiw bi dafi ko sa soxna ne ko nga soxlaa xam da nga dem ba ko moom wax ak moom mais su fekkee tal leneen la ci ay bët ngay wax ak moom ak ay joxañ waaye doo ñëwee dem di taxaw ak moom di wax ak moom waaw xoolal lii ni mu yomb rek da koy woo fekk taxaw wax ko fekk sa soxna nga wax du amul benn problème dañ xam dara loolu waaye su keneen la sax bu fekk kii sax yaa ngi jéem a def def yow dama rek waaye bu ñu ko wax ju leer kon mooy xam ne jafe-jafe yooyu bi tey am boo koy dem ci kër gi sa kër soxna yi te ñu gaare sa oto bi ci bunt kër gi génn dugg doo am benn problème mais su dee keneen la rek aar yi la koy dem ak fa ngay gaare oto baag fa ngeen di tajeeg yooyu yëpp ay protocole la yoo xam ne mënoon na ci bañ a fekk kon mooy moom ku ci nekk saytaane moo la tax mais suñu borom moom daf ko jafel daf ko jafel waaye nag doomu aadama bi su fekkente ne saytaane moom moo ko jiital boobaa yooyu li muy jafe-jafe ci moom mooy dàq ci moom la ñu dagat fa zayyana lahum saytaanu a'maalahum fa huwa waliyyuhum al-yawma wa lahum adaabun aliim léegi koo xam ne këram des fois bañ ko fay laaj rek mille francs wala deux mille francs mu bañ ne loolu amul jëm rek daal di ànd ak koo xam ne dañ koy ñàkk ay trente mille francs ay cinquante mille francs jëm ko ba noppi nag xelam daal ci loolu kon kooku seytaane mooy ki ko jiital rafetalal ko ay jikko tomb ñetteel bi nag ci loo xam ne moom képp kuy jikkoo kuy askana ci islam da nga koo war a yor mooy jikko yi islam yi rek kooku moom nit ko jeexal mooy nekk nit kuy muñ nekk nit kuy jéggale nekk nit koo xam ne da ngay wattilu suñu borom tabaraka wa taala nekk nit koo xam ne da ngay yërëme nekk nit koo xam ne da ngay tabe nekk nit koo xam ne da ngay càllal bépp jikko boo xam ne mooy makaarimul axlaaq rek jullit daf ko war a melawoo parce que jullit mooy écran maanaam jikko mooy écran bi nga xam ne ci la bépp melokaan bu nekk jullit bi di war a feeñ sa pas-pas war naa feeñ ci say jikko say jaamu yàlla war naa feeñ ci say jikko te bépp melokaan boo mel sa écran jikko moo ko war a wane sa jikko moo ko war a wane mais suñ la gisee nga nekk fasdan xaliisal xalb comme ni mu ko waxee woon nee na kon boobaa li muy tekki dañuy xam ne kon kat yow ngëm yàlla nekkul ci sa biir xol ngëm yàlla day nooyal xol koo gis ku sàq xam dara ku at ku mënta muñ dara li muy tekki mooy ngëm yàlla newul taxal ko xol bu ngëm yàlla nekk day séex daanaka nga mën ko def lu ko naqari sax moom day jafe xanaa lu naqari diine mais lu ko naqari moom ci boppam moom du ko yëg waaw du ko yëg moom parce que intérêt ba mu nga xam ne moom la lay bëggal moom mooy tax mu mën a muñ loolu da nga koy lor kooku julit mi ñaaw jikko di la jéem a lor waaye nga di ko jéem a teg ci islam di ko jéem a woon jikko yu baax nga xam lala ca yàlla jural bu ëllëgee moo tax nga mën a muñ màtt màtt yambam yooyu mu lay màtt wax yu ñaaw yooyu mu lay wax ak jëw yooyu mu lay def ak lor gën lay lor comme yàmb yu màtt ndax dañoo bëgg lem lem mooy lan mooy jugal ab julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min umrin naam julit bi nag boo ko bëggee jubal il faut nga muñ ay màtt màttam doomu aadama boo bëggee teg ci lu mu xamul woon bëgg koo teg ci yoon wu juyoog bànneexu bakkanam bànneexu bakkanam ci la nekk nga bëgg ko cee jële il faut dana wéqu dana màtte dana def lu nekk soo muyul loola nag doo ko fa fekk kon te mujjul bi day nekk muñ kat nekk jéggalekat ne ko suñu borom waxe wal kaasimiina al xayza ñi nga xam ne ku leen merloo ñu leen ci maami wal aafina anin nas baal kala merloo woon wallahu yuhibbul muhsinin jël lu baax defal ko ñetti étape la am na nit ñu suufee ñoo xam ne ku leen merloo ñu delloo la mer ma maanaam boo leen tey waxoon kàddu bu ñëw ci biir jotaay bi dañuy jóg delloo la ko wala sax bu ko ëpp kooku moom jëmul fenn moom ñëpp am ko tane kooku moom boo ko waxee kàddu gu ñaaw mu ne teel moom téye boppam maîtrise boppam ne teel mais nag jéggalu la de ma ngay alat ay stratégie ay pexe yoo xam ne commencé xalaat ci ban société lay liggéey ba ma téléphoné ba ñu dàq ko wala fan kën fan la jabaram dëkk ba ma dàq ko ma ngay xalaat daal say projet yoo xam ne dana ko mën a yàq da ngay jékki-jékki dama ñu waaw yow fi dàq nañ la yow jox nañ benn rapport ci yow boo xam ne yow lii baaxul kooku am noppi woon na ci biir moroom mais jéggalu la kooku itam suñu borom ne doyut am koo xam ne wala aafina anin naas jéggal na la nee na kooku leen génn na ci yow koo xam ne moom denc na mer mi jéggal na la itam mais nag bana la génn na ci yow moom sax dara am duutu dara waaw waaw bana la koo gi dem su borom ne doyut koo ko tane la mais doyut si galaas yëpp ne sox lañ mën a yem waa ji daal wax na lu ñëw koy woo ah am nga ko dara ci taxal itam nag mais nag ba nga ko nag waaw bu daan ñëw sa kër bu mu fa ñëw ci waaw waaw boo ko daan liggéey loo bu ko liggéey loo ci boobu jotee ko leen daal na dem nga dem daal li ñu wax rek demal ma dem demal ma def rek demal ma dem kooku suñ borom nee na doy waaye kii waa ji denc mer mi jéggal ko dem këram seet ko bi wala dem seet mbubb mu rafet a rafet defar ba mu jeg jox doomam ne ko dama yëg ma sa bàyyi jiw ne ko na ma jéggal waaw lan ma waxoon ca mbooloo ma xam naa ne man mii maa tooñ ne ko mu jéggal kooku la suñ borom ne kooku la soxla waaw wallahu yuhibbul muhsinin walladina ida faalu faidatan aw zalamu anfusahum takarullaha fastaghfiru li zunubihim kooku loolu nag dafa demee parce que mooy idfa billati hiya ahsan xam nga suñ ko waxul idfa billati hiya sayyi waxul sayyi de waxul idfa billati hiya hasan mais idfa billati hiya ahsan ahsan ahsan mooy loolu ma la wax parce que sayyi mooy nga delloo ko lu ñaaw li mu la def hasan mooy nga baal ko rek ci génn ci moom ahsan nag mooy nga baal ko mën a jël lu baax jox ko parce que jullit suñu borom da koo andiwul ci kaw suuf ne ko fexeel ba baax mais daf ne ko fexeel ba baax te baaxal ñeneen waaw fekkee bu la nit defee lu bon nag nga delloo ko ko yow kon baaxu parce que moom war a jàngal parce que moo génnoon sa gëm ne tey man du ma saaga nit saaga la ci mbedd mi nga tontu yow kooku fexe na ba saaga loola jox na la programme boppam loolu léegi yónnatoo sa programme yow waaw waaw xam nga nit ñi da ngaa war a fexe ba nit ñi duñ la jox programme mooy ku ma def naa nga ma fayu comme mooy yow ñun ñeneen ko ndi ah nga julli ko tey suuf ba noppi ne fas yéene naa bëgg koy jël si lu ma fi wax kàddu gu ñaaw lu ma fi def lu ñaaw génn rek benn waaye wala bëgg a wuy mu daal lay jaar foo xam ne fu doy waar la bu doon bëgg ko xanaa dëgg moo xamul daal ko delloo waa jooju si jox la programme yaag moo ma yem moom bu muy xëy garab loolu la programme yow ci topp sa programme dugal na ci loolu waaw dugal na ci loolu moo tax nag da ngay war a fexe ba yow programme bi nga notoon wa isa xaatamahumul jaadiluuna xaalu salaaman salaaman xam nga jaahilan bi moo la wax loolu salaam lam wax moom du salaam mais yow salaam ngay wax yow xam nga wax la waa sëñ bi baal ma àq de rek kooku mooy salaam mu tax na ah maa xamul rek boo boo tontu woon xam yow rek nga dem yow nga ba wax salaam yow te dem xaalu salaama te xam ne kooku suñu borom tabaraka wa taala nga siqal wa jasaau sayiatin sayiatun misluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah innahu la yuhibbu zalimin suñu borom nee na ku ñu def lu ñaaw am nga droit fay waaye nee na soo baree fa man afa wa aslaha ñaar la bool de xool leen afa ak aslaha jéggle jéggal waa ji ba noppi rek xaare waa ji parce que waa ji jikkoom ñaaw ba muy saagaaka wax lu bon dafa aju réparé ni nga koy réparé mooy da nga koy yónnee lu baax waa ji fa bi xeer di la sànni da nga koy sànni doomi comme yow waaw mais boo sànniwaatee xeer baaxul boo dencee xeer yi sànni woo ko dara it baaxul parce que danaan ay xeeram daal jeex rek waaye xeer la yor mais soo ko sànnee comme nag mu xool ko xam ne ah nekk man maa yore xeer waaye nit ñi comme lañ yor lañ loolu day yedd boppam day mujj loolu boo ko defee nit mu def lu ñaaw delloo ko ko day mujj ne man nii maa bon nit ñee baax parce que kii ëppuma ko doole ëppuma koy pexe gënuma koo xam dëkk bi lii ma ko wax ci lu ñaaw bu ko neexoon dëgg ma sax waaw kon bu ma jéggalee kon moom dafa yor jikko lislaam dafa baax daal di yedd boppam jéem laa way jéem laa way waaw loolu kon jikko yooyu il faut jullit jéem ko yor ku ko defee ak askanam ci lislaam nag doog a nekk loo xam ne lu wér la kon nag foofu la ñuy mën a yem incha allah yàlla nu suñu borom tabaraka wa taala def suñu askanu ci lislaam doon askan gëlër suñu borom tabaraka wa taala gërëm ko te nangul nu ko bu ñuy génn àdduna bokk ci ñi nga xam ne dénkaane ba Ibrahima dénkaane woon wala tamootunna illa wa antum muslimun nga la waay bu leen faatu lu dul fekk na nekk ngeen ay jullit yàlla na suñu borom tabaraka wa taala defal loolu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh